ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba jug leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba jug leen taxaw déglu ngeen daal di xam ne borom Touba mooy borom Touba da bañ di xëy di ko te lii borom Touba. te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom Tuuba ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Tuuba jébbal ko jàkka ya sa koo jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Tuuba dëkke si kartana barke borom Tuuba dëkke zikartana barke borom Tuuba te booba ñooyay ku gis xutbub jamono bu am fi yow mursalin sayyidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ya rabbi lisrah fi dawamin sadri sarhan bihi akunu misla badri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur Touba TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér di nuyu mbooleem kilifay diine yi ci réew mi kenn ku ci nekk noo ngi lay jox wàccuwaay wi nga amee dellusiwaat ak yéen ci seen émission euh, kenn du Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñuy nuyu jëwriñ Alaaji Mbàkki yu fay nga xam mooy représentant xalif général des Mourides ci Ndakaaru di nuyu bu baax a baax Serigne Cheikh Balla Samb bi nga xam ne mooy coordonnateur général télévision Touba TV sëñ Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbodj ak mboolem ñu nekk ci seen ginnaaw àllarba jot xam ngeen ne eh, seen émission bii di kenn du sëriñ bi dana ñëw àndandoo ak yéen ci waxtaanee sëñ Touba waaye waxtaanee eh, mbindum sëriñ bi waaye nag di ko àndandoo ak koo xam ne nii eh, ni ma koy faral di waxee saa su nekk ñëpp rafetlu nañu xam-xamam te it di ko topp ci li muy liggéeyal sëriñ bi. ci réew mi ak bitim réew muy bi sëriñ Abdoulaye Diop Bichri Xaadimul Xaadim ñu di ko ziyaare bu baax a baax di am mbégte lool ci euh, di ànd ak moom àllarba ju jot li nga xam ne mooy émission bi di ko ñaanal yàlla dolli ko wér may ko kattan may ko mu yeggale di am mbégte bu baax a baax a baax nag saa su nekk euh, ni ma koy waxee di ko àndandoo ak euh, mbooloom kenn du sëriñ bi nga xam ne ni ñooy groupe bi nga xam ne ñoo lëkkaloo muy groupe WhatsApp kenn du bi mbooloo mu takkoo takkoo takkoo bu ñu ci nuyoo euh, sëñ Mama Thion sunu yaay Awa sañ sëñ Bàcc Fay ak ñi seen ginnaaw ñëpp day mel ni euh, matale nañ ñëpp kon nag noo ngi nuyu ku nekk ci euh, mbooloo moomu ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci commission yi ak mboolem koo xam ne ni rek bokk nga ci groupe beeg foo ci mën a bokkee ci réew mi bitim réew ñoo ngi leen di nuyu. di am mbégte ci mbokk yi nag barki démb jotaay bi nga xam ne daan nañ ko defal suñu jàmbaar ji Cheikh Abdoulaye Lahat mbokk yi di wootee fu ne. di wane seen mbégte ak seen cofeel ci liggéeyal sëriñ bi euh, ñu di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte xam ngeen ne tey jii euh, suba incha allah euh, wala ginnaaw suba ci àjjuma ji la ñu war a dundal bisub fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad Xaadimu Rasuul di ci di ko ci ñaanal waaye di ci taasu itam ci barkeem di ñaanal sëriñ Sidi Cheikh Abdoul Ahad sunu borom yàggal ko fi loolu te ak sëriñ Abo Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem ñi nga xam ni seen ñoo njabootu seen bilaat gépp ñu ngi leen di eh, jox wàccuwaay wu mag a mag a mag a mag xam naa balaa sëñ Ablaye nuyoo tey moom damay këf kàddu gi rek ndax eh, eh, jiital benn élément boo xam moom laa bëgg ñu ubbee ko jotaay bi maa ngi nuyu baax sëriñ Cheikh seen daaya tey dama bëgg su ma duggee ci xaside gi ma bëgg a waxtaane incha allahu taala mu man di dugg ak a génn ndax loolu la jotaay bi laaj tey tey na xam ngeen ne amuñ jàng ak ganu jànkat waaye tey sëñ Cheikh seen mooy occupé njàng mi allah kon nag sëñ daam nag ma ko waajalal léegi mu bokk ci biir jataay bi euh, sëñ daam kon ni ñuy def ginnaaw ba ma la nuyoo nuyu ab Abdou Diouf sëñ Mansour Guèye euh, ak sëñ Ibrahima Faye ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax dañ naan coow dem régi fàttaliku jenn jàmbaar joo xam tey moom la ñu ubbee sunu émission kenn du Serigne Touba Khadim Rasoul muy Serigne Saliou ture tey damay bëgg balaa sëñ Ablaye Diop a nuyoo ma këf ko euh, daw teg waxtaanam bu am solo woo xam def na ko ci sëñ Touba Khadim Rasoul ñu di ko ñaanal wér nag sëñ Saliou Touré. Euh, bari na ñoo xam ne ni tey seenu defaru ci loxoom la jaare bari na ñoo xam ne itam seen murit ak niñ koy dundee ak niñ koy sellale ginnaaw yàlla sëriñ Saliou Touré la léppam nag di sëriñ Saliou Mbacke Xaadimu Rasuul euh, mu teg ko Cees mu defar nag njaboot gi defar askan wi teg leen ci yoon ci melokaanam kon nag euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko wér may ko kattan may ko itam mu gudd fan lool nag ndax dundam ba léegi melokaan yu soo ko xoolee rek xam ne la Euh, kon Serigne Saliou Touré yàlla na suñu borom euh, gën koo dëbb kàttan gën koo dëbb ak wér damay wax ni Sénégal nag dañuy faral di war a di fàtt faral di fàttaliku ñi fi nekk ak di leen dund ak di leen bàyyi xel ak di leen rendre hommage ak di déglu seen i waxtaan moo gën euh, ñuy xaar ëllëg yàlla na yéex kon nag sëñ Saliou yàlla na ko yàlla gën a wéral gën koo dolli kattan kon sëñ laay dama lay bàyyi bala ngaa nuyoo tey moom damay këf rek jataay bi daw dem waa Rési tegal ma waxtaanu Serigne Saliou Touré ma door a dellusiwaat nag ci plateau bi incha allah ñu dugal ci waxtaan bismillah. ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba. son borom def ko ca sant yàlla bu baax sant yéen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa borom sant sunu waaja ca Touba yi muy Serigne Touba ñun ñëpp nañu xam ne la sunu borom bëgg bëggoon lépp. Serigne Touba nga woon ca loola la tere woon lépp it Serigne Touba ba woon na loola laalu ca dara amu lenn loo xam ne li Serigne Touba sans borom digle ko te mu gis loola te defu ci Serigne Touba lépp lu sans tere it Serigne bana woon loola balu na loola ba ba ba noona nag tey faw nu waxtaan ci muy Serigne Touba nu di taalibeem di njabootam yaakaar ko fii ci àdduna yaakaar ko fee ca àllaaxira waaye li nu yaakaar nanu koy ame war nan koo seetaat bu baax nanu koy ñàkke war nan koo seetaat bu baax ndax nu man di toll te amunu ko du nu jariñ dara am déet kon nag nu mu toll nan nan ko toppe noona gis nan mag ñi nu jiitu woon la waroon ñu nekk ca ba fi ne aw nit a ngi leen topp te xamuñu kuy kooka te kooka dana leen yóbbu àjjana sa borom musal leen ci safara kon nanu góorgóorlu bu baax a baax ci fëttiku ci jaamu yàlla roy sunu mbër ma ca Tuuba muy Sëriñ Tuuba nanu ko roy daana wax ak boroomam daana wax ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye mësuta ànd ci lépp loo xam ne li tegewul ci yoon àdduna ak la ca biiram jëralu ko loola loola it téye ko nasaraan yi téye woon dana nekk firnde ci ne jaxasoowut woon ak ñoom jotewut ak ñoom dara ku gis yi walla nga xam dara ci lu colonialisme boobee bindoon ci Sëriñ Tuuba da nga xam ne Sëriñ Tuuba tooñu woon tooñut keneen ku doon jaamu yàlla la ñu bëgg koo jaay doole tereloo ko loola mu fétti ba leen kookee mooy sëriñ Tuubaa nan koy roy ci doxinam woowi te baña a nekk rek di soow jaamu woo yàlla toppoo ko sëriñ bu ne nga ne moo gën kee ku ne moo gën kii mbir mbirum sëñ Tuubaa du mbirum kenn koo defee ne moo ko moom moomu ko sëñ Tuubaa ko moom am déet waaw sëñ Tuubaa lañ ne woon cas yóbbu ko ko fitnaal jug leen taxaw déglu may wax borom Tuubaa ngeen dal di jërëjëf waares yi ñu gërëm leen bu baax ci élément bu am solo boobu euh, li mu wax rek lu am solo la euh, li ci mat a jàngat rek mooy euh, li mu wax ne sëñ Touba mbirum sëriñ bi ak sun borom ku ko xool seetlu ko sax da ngay ñeewante da ngaa war a ñeewanti sëriñ bi li nga koy ñeewante mooy fa mu yegg sun borom ak ni ko yàlla jaraloon nga xam ne yàlla jaral na ko mu taylee boppam ak lépp lu mu am ngir dem liggéey li sun borom ba tax li ñuy wax bànneex ci àddina jaaru ci amu ko yëgu ko xamu ko kooku nag fa mu yegg suñu borom nit ñi war nañ koo mën a consommer ndax eh, nit ñëpp suñu borom rek la ñuy wër te kuy wër yàlla ku nekk soo gisee koo xam ne ni yegg na suñu borom foo xam ne la mu wax ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii waaye wa annal muqaffa man xalaani yar daaw kon sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu waaye ñu ñaanal sëriñ Saliou Touré eh, eh, yàlla gën ko fi yàggal may ko wér dolli ko kàttan mu yeggale maa ngi lay nuyu ginnaaw ba ma la félicité ci garaam bopp bi comme que yëf yi moom léegi eh, nii la demee eh, duma ci booleeti ay wax damay bàyyi noonu rek eh, damay dem ba ci jëwriñ ma ma ma door a kii sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi aoudu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiru wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wassalaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lil aalamin sayyidina wa nabiyina muhammadin il wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp àllarba bu jot ci seen émission kenn du sëriñ bi nu ngi amaat mbégte jël siwaat ci seen jataay bii nga xam ni jataay bu jullit yépp di topp la taalibe yépp di ko topp di sant yàlla sunu borom mi ñu defal bi fadlihi nu fekkewaat ko te tal ko eh, yàlla na nu nangul mboolem suñuy jaamu mhm. yàlla na wéral suñuy cër yàlla na yàggal sunu taxawaay eh, ci ëttu islaam amiin ngi ñaanal sëñ Muntaqa Bachir mi nga xam ni moo toogee jataayu cheikhul xadim jëwrinu yanant bi alayhi salaatu wasalaam yàlla yàggal ko lool ci kanamu njaboot di ko ñaanal bu baax di ñaanal njaboot gépp waaye mm-hmm. nuyu sunu wasila sëriñ Hamza mu sëriñ Shuaybu di rafet lu bu baax liggéey beeg euh, hadiye ji ñuy dajale lépp jëm ci liggéeyu suñu muntaxaa bi yàlla yàlla dooleel ko te jàppale ko ak njaboot gi yëpp mu ngi nuyu borom kër gi alaaji Ahmadou Mbàkke yu fay mm-hmm. di ko ziyaar bu baax di ko ñaanal mm-hmm. di nuyu sëñ Seex Balla Coro Samb ak sëñ Jibril Ndaw mi yor programme bi jaar ci sëñ Mbàkke Mbooj ba ci mbooleem techniciens yi ci télé bi tey saytu liggéey bi di la nuyu sunu soppee sunu rakk sunu xarit sunu doomu ndey sunu xaamidu di la ziyaara di la ndokkeel di la sant fu nu toll di la ñaanal wallaahi yàlla yàggal la lool yàggal sa taxawaay ñu ngi lay jotal nuyoo sa soppee sa xarit monsieur le maire monsieur le maire Bambilor Ngagne Diop sama xarit waaw tey defal nañu teraanga yu bari maag alaaji Akassa Samb ndeysaan sant la fa lool wax kàddu yu rafet ci seen diggante moo ko ziyaaral bu baax ñu ngi koy ziyaar bu baax di ko ñaanal wallaahi nuyu itam sëñ Ibrahima Fall sëñ Ibrahima Fall Touba Forage moom it ndeysaan jaar nañu foofee tubaarkàl la ndeysaan di ko nuyu moog waa jandeer yépp nit ku baax ku am yéene ci yoon wi wallaahi ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla ko yàlla sàmm sàmm njabootam amiin ko kàttan defal ko xéewal amiin nuyu tam mbokk ya fa nekk yëpp nag ñoom Pape Ibrahima Mbaye ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. ñoom ña nekk di jàppale ngan jóob yëpp te mm-hmm. mairie ba yàlla yàlla sàmm leen ñoom defal leen sutura amiin amiin amiin euh, sëñ Hamidou nu ngi sant bu baax waa kër Alaaji mm-hmm. Omar al Fuuti Taal jaare ko ci sëñ Cheikh Ahmadou Tidiane Taal sunu soppe boobu nga xam ni démb la noonu ak moom muy nit ku baax ku bëgg yanant bi ku rafetal euh, bi coow juddoo démb ci nga xam ne léegi moo xew rek mhm. réseaux sociaux yi dañuy yàqante mhm. dañuy fekk as gor soo xam ni lu baax rek la ëmb ci xolam dagg vidéo bu yàgg dagg vidéo bu yàgg dugal ko pour jaxase ko génn kër ci anamu mhm. yàq te loolu nekk lu yaatu tey sunu mbokk sunu soppe sunu rakk sëñ Mamor Mbaay yoonu géej gi ñu dagg vidéo boo xam ni anamu yàq rek moo leen ci jub moo leen ci dugal mm-hmm. ndax xëy na mere nañ ko fan yi ni muy défendre yoon wi mm-hmm. euh, def nañ lu nekk jël nañu photoom monteeg lépp jël photo yi démbam mm-hmm. waaye nu dagg vidéo yóbbu ko ci wax da ngaa mel ni kuy saboote lu jëm ci waa kër maam sunu maam ju baax jooju Alaaji Omar Al Fuuti Taal waaye moom it nu koy sant di ko félicité sëñ Mamor waaw ndax dafa ah, def loo xam ni damaa neex woo naa ko démb wax ko ko muy grandeur waa saa bu ñu la waxatee yaa tooñ rek mhm. na nga am oyofu mi jéggulu naa mhm. waaw loolu la la la sang di def mhm. kon def na lu rafet loo xam ni taalib bi yépp a ko sant dem ma jokkoo ceeg sëñ Cheikh Ahmadou Tidiane Tall mu rafet lool moom it ndeysaan rafetlu ko def moom it lu am solo dane ma sax na ngeen ànd ñëw ca kër ga ba saytaane yi yàq këru diine yi ak ruuxale ñu xam ni dara xaju fi ñun ñëpp benn lañu ndonal maam ñi la ñu yor te maam ñi dañ ko rafetal kon du ñaaw mukk ci nun Mm-hmm. dinaa def vidéo wane ko sunu njéggal ñun famille omarienne bépp mm-hmm. waaye bëgguma mu yem ca na ngeen ànd dikk ba ñu xam ne ñaari kër yi jàmm fi xaj mm-hmm. ndax xam nañu bu baax fi Cheikh Ahmadou Bamba tegoon Alaaji Omar al Fuuti Taal ndax daana wax ni Mbàkke day bëgg naa ko ngir yetti mbir Mbàkke ci laa ganee àdduna man sëñ Tuubaa Mbàkke laa njëkk a tagge yanant bi alayhi salaatu wasalaam waaye Mbàkke tam wala Alaaji Omar al Fuuti Taal radiyallaahu anhu daan teg bi ma seere te booba ganeeguma àdduna kon loolu sëñ bi di ko wax mukk njabootam di tooñ wala ñuy wax lu ñaaw jëme ci kër googu kon lépp benn la nu ngi sant kon sëñ Maam Mor Mbaye ci grandeur boobu di ko ñaanal mucc nag yàlla ko yàlla sàmm di ko ñaanal mucc lool sàmm ñun ñuy wax ñëpp mhm. yàlla sàmm ñëpp dëgg la ndax euh, njuumte yomb na ci mhm. te dañoo war di tolérante nit ki mënoo muy wax lu mat ñaar fukki at wala fukki at ak nangam mhm. ngay kontaan ci moom di ko approuver mënoo koo nangul benn jour benn njuumteem kooku du mbaax. dëgg la te damay wax ni sëñ xaamidun nit su fekkee saa boo defee lu rafet du la woo félicité la ci li nga def. amul droit soo juumee mu lay woo c'est pas normal. dëgg la kon loolu nanguluñ ko kenn. Mhm. waaye nag sëñ maam moo ndokk ba mu xamee lu rafet. ci lañ ko mhm. yar def noonu. Mhm. yàlla na ko yàlla sàmm te sàmm ñépp ñuy wax. ndax fakkastal yomb na waaye yàlla na nu yàlla sàmm ñun ñépp. te xam ni sunu yitte ji. mooy wax lu rafet ak luy boole waaye duñu tàqali mukk ndax sëñ bi nu lool alaaju omar fuuti yu yëpp mhm. rawatina sunu soppe cheikhu omar mhm. di nuyu sunu baay sëriñ cerno bachir nuyu mhm. waa kër ga yëpp dëgg kàddu yi rafet na ginnaaw bi ñu ci waxee lépp tege na ci suuf kon soytaane yi yàq nag nañu nañu nañu toog te xam ne mënatuñoo yàq dara ndax lépp rafet na ñu ngi lay sant sëñ Hamidou bu baax di la gërëm di gërëm suñu xarit sëñ Seex Seen Bayax suñu àndal bi ñuy ñëw daral nuyoo sëñ Fàllu Maraaxib mhm. ak suñu ba bale mu àndal mhm. jóge ba ca sëñ Siidi Mbàkke alxuraan ca jàmm gën mhm. bëgg loolu émission bi di ko safoo tax mu ni damay ñëw tey dagg sama itte toog ci télé bi topp leen ndeysaan ngi koy ziyaare di ko ñaanal mucc bu baax ci barkeb Jaalibatul Maraaxib bi amiin ñu ngi nuyu mbokk yépp nag di sant ñëpp di leen gërëm ndax émission bi sëñ Xaamidun mhm. fu ma romb rek ndeysaan seen émission bi kenn du sañ sëñ Tuubaa duñ ko rate muy ci réew mi nag muy ci bitim réew ñëpp a koy topp kon ñu ngi ndokkeel ñëpp di leen sant maa ngi sant bu baax mhm. ñaw bu rafet bii ki ko ñaw muy sëñ Alioune Ndiaye mhm. bëgg fàllu ne ca géejawaay moom da gis nga kuppam ni mu rafet daa mën a ñaw ndax moom mii ma ñawal li yàlla dogal na daana ñawal sëñ Modou Boussa Dieng ndeysaan daana ñawal sëriñ Mbacke Soxna Lo mm-hmm. ñawal na Cheikh Mouhamadoul Mourtada mu sëriñ Touba mm-hmm. daana ñawal sëñ Modou Aminata Fall mm-hmm. te di sëñ Sërif Mbacke mu sëñ fàllu Sërif Fanta Madi suñu soppe bu baax boobu sañ Sërif moom ma wax ci làmmeñam ba ma ko xamee ba léegi bëggatuma ku ma ñawal ku dul moom ndax ñawam bu rafet dëgg la kon ñu ngi koy ñaan sëñ Alioune Ndiaye ñaw rafet na tubarkalla jërëjëf sëñ Ablaye xam nga olof yi dañuy wax ne mm. ki bëgg nga dee loo mu ko ki bëgg nga faatu loo feebar xeeb na ko waaw am na koo xam ne sëñ Cheikh Sène du la mës a woon ne la jërëjëf. dëgg la waaye foofa kastaloo lay xaar. lay xaar waaw. kuy jéem nag mooy juum. dëgg la. kuy jéem moo juum. ndokk nag ba jéem gépp daa jëm ci lislaam jëm ci sëriñ bi. waaw maanaam jéem ñu jëm ci leneen de. Mhm. am na koo xam ne aw woykat lay roy. Mhm. woykat ba muy roy ma nga nekkul sax ci réew mi. Mhm. waaye clip bu mu jënd tey dana fexe ba mokkal chanson yi. dëgg la xool yére ba muy sol mu sol ko xool wati fi watu mu watu ko. dëgg la kooko kooko dëgg la. muy sëñ Mamor mbaay muy sëñ Abdoulaye Diop Bichri muy sëñ Basirou gay muy sëñ Gana Messere muy sëñ Saliou sàmb koo ci gis nat nabeem mooy gëstu mbaax ak sëriñ bi dëgg la xam nga ki dem wax naa fii ne ñun sëñ tubaa moo tax nuy jaamu yàlla dëgg la c'est-à-dire ñun du sëñ tubaa lañ teg place yàlla di jaamu sëñ bi mais li liñ bëgg a leeral mooy cest à wax li nga wax wax nit ki da koy jël di ko di ko dégge nu mu ko neexee mooy sëñ tubaa moo nu kaay leen ki ngeen war a moytu mooy yàlla ki ngeen war a jaamu mooy yàlla ki ngeen war a gëm mooy yàlla hmm. kooku bu ñu xamee yàlla moom moo tax dëgg la xam nga waxin dégg lay laaj billaahi aminu wa aslimu ma hmm. wal tuxsinu li wacci baaqin xamaa hmm. kooku xanaa jeex na takk tàkk ci yàlla dëgg xanaa ki taxaw yëkkati wax ne kulli lahoo jàlla fii sirrin wa fii alanin mhm. walastu asalu xayra naafi'i laahi kooku jeex na ci yàlla wallaay jeex ci yàlla xanaa kii wax ne lillaahi jalla yaddi kooku jeex na ci yàlla léppam yàlla la ko jox kooku nag bu fekkee ne moo la jegel yàlla li ñuy wax ne bala ngaa dem ci yàlla am kerkeraan yi mhm. faaw nga am foo wa fàttaqoo wabtaqoo ilayhil wasila wasila googu muy sëñ Tuubaa moo dox suñu digg ak suñu borom kon nag loolu moo ci am solo sëñ Ablaye mhm. noo ngi sant bu baax monsieur le maire Ndiagne Diop muy nit ku baax ni nga ko waxee léegi suñu xarit la yàlla moo nu boole muy ku bëgg lu baax te bëgg njabootu sëriñ bi tey sonn bu baax ci njabootu sëriñ bi yàlla na ko yàlla gën a taxawu may ko euh, mbooleem xeex yéeg yëpp suñu borom musal ko ci euh, ñu ngi sant baax soxna maam Faati Gueye moom soxna Kiné moom Cheikh Abdoul Ahad nekk fële ca Washington mook sëñ Mamor Mbacke ñu ngi koy sant bu baax soxna maam Faati jot nañu keroog teraangaam wallaahi wallaahi soxna na ma ko ne la ñu am incha allah wallaahi wallaahi ñu maam Faati Gueye ñu ngi koy ziyaare baax di ko ñaanal yàlla taxawu ko may ko kattan moom it dara mm. darajey sëñ Touba ak Cheikh Abdou Lahad mii maamam di ziyaare baax soxna Kiné eh, di nuyu baax soxna maam Jaara Mbàkke mu sëñ Abo moom Cheikh Abdou Lahad moom it ñu ngi koy ñaanal baax di ko beral wàcc waayam moo ko sëñ Galas moom soxna maam Faati moom Cheikh Abdoul Ahad hmm. waaye moom sëñ Abdoul ambassadeur ñu ngi koy ziyaare baax di ko ñaanal euh, di nuyu baax sama sëriñ nag sëriñ Abo di ko ñaanal yàlla dolli ko kattan ak soxna maam Ami bintu Cheikh Soin bu Mbàkke yàlla na suñu borom gën koo wéral ma may ko kattan hmm. xam ne ñu ngi waajal gi ren nag boo ñëwee Touba maa la invité que sëñ Abo hmm. xam nga man genn màggal ginnaaw màggalu Touba genn màggal la muy gu sëñ Abdoul Ahad euh, ñëpp di fekk ndax euh, sama sëriñ boobu nga xam ne amoo lu dul moom maa ngi koy ñaanal yàlla gën koo kattanal Euh, sëñ Ablaye. Mmh. Euh, damaa bëggoon nga indil ma tuuti commentaire ci sëñ Saliou Touré mi ñu teg léegi. Mmh. Euh, muy koo xam ne nii mmh. bari nañu defaru tey ci loxoom la ñu jaaree defaru. su ko defee boo ma ci indilee tuuti ci ay leeral. ñu door a ñëw nag seeti xasida gi ñu war a waxtaane tey. waaw tey nag bunt bi ñuy waxtaane xasida gi mi ngi tudd wama ya illa billah loolu nag jàpp naa ne dafay ñëw rek ci avocat bi sëriñ bi doon sàkkoo ci suñu borom ngir nit ñi di am tawfiq yàlla. te ko leeralee. nga feeri ko leeral ko saraa ko dana dana dikk ci sëñ Tuubaa yërmaande ji mu ëmbal jaam ñi sëñ mm-hmm. Ablaay waaw sunu weejur bu baax woowu mm-hmm. euh, sëñ Saalihu Touré mm-hmm. dafa ñu mën a wax ci moom lu bari ci anam yu wuute xam nga jëmm la joo xam ni sëñ Tuubaa da daan wax ni ku la gën ku la yar moo la gën ku la gën ku la yar moo la gën daawul wax ku la jàngal ku la yar rek la daa wax kon sëñ Saliou Touré dafa gën ku ko yar mhm. ndax kuñ la wax ni sëñ saaliwu lañ ko tudde mhm. ginnaaw juddu bu rëy bi nag mhm. xam ni sëñ Touba sol na dàllam seeti baayam gane ji ko kon ginnaaw juddu bu rëy ba ak mbokkoo ga dafa gën ku ko yar sëñ saaliwoo ko yaral boppam ñu dëppee ko sëñ Saliou sëñ Saliou woo ko jàngalal boppam am na diir bu ñu ko génn rek muy ba mu nekkee njaareem ca sëñ moor Mbay si sëñ Mouhamadou Dem nga xam ni sëñ Muntaxa seere na ñun ñaar nekkandoo nañ fa mhm. keroog lañu ñu fasante kóllëre man ak moom mhm. booba ñun ñaar ñu nekk ay tuut tànk di nekki ndaw mhm. ñu ànd ànd bu rafet sañ mun Muntaxa àgg na ci wax ni booba de am na loo xam ne gisuma ko sama bopp moom gis na ko ci te lam ci gisoon daan ma ko junju maa ngi door a am yàqin ci loolu toog ci nga xam ni kon seen ànd moom sañ sëñ Muntaxa joxoñ nanu ko ci mbaaxam waaye bi ko mun Muntaxa di joxoñ it fekkoon na mag ñu joxoñ ñu ko ndax Baye Saliou dafa gën ku ko yar muy sëriñ Saliou Serigne Saliou jàngalal na ko boppam yaral ko boppam mhm. saxal ko ci këram nag mhm. di ko sant yoo xam ni ah bari waawul ku mu koy sant mhm. dem na ba li ñuy dunde ci kër gi dépense am daana ko teg ci loxoom di ko jox te defe naa loolu yombul te loolu yombul de Serigne Saliou àggoon na ci moom di ko tëralal bind ba mu doy ko mu koy booloo ki ndonga mu leen di tëralal bind moom sëñ Saliou Touré ngir li sëñ Saliou def ci moom mu koy def ci ñeneen yaral ko boppam ba jikkoom doy ko mhm. muy jëm joo xam ni li sëriñ tuubaa rasul radiallahu anhu wax ni mhm. innama ijlaalu aalimin amal mhm. ijlaalu rabbil arsi fii ma qad nuqil innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi ma qad nuqil ca biir nëx ju xadaa il xaaj sëñ tuubaa nee na ngi leen di xamal ni màggal boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam moo màggal sunu boroom noo yem ay wàccuwaay déggin lay laaj nag mhm. boroom aras saa boo màggalee boroom xam-xam bu jëfe xam mhm. màggal nga yàlla ndax yàllaa teral boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam mhm. dañ tuubaa ni innama ijlaalu aalimin amal ijlaalu rabbil arsi fii ma qad képp ku màggal boroom xam-xam boo xam ni mu ngay jëfe xam-xam ba mu am mel nga ni ku màggal boroom aras su sunu wéyjur wii di boroom xam-xam bu amul benn contestation boo xam ne boroom xam-xam yee maandu yépp ñoo nangu maase ni ak am xam-xam waaye mu jëfe xam-xamam mësoo dégg ci waxam wax ju ma jaayee benn taalibe lu ma neex ci moom bokkul ci sëriñ buy jaay taalibeem wala mu koy far ci li ko neex saa su waxee ci dëgg la lay delloo ndax xulil xaq min rabbikum yàlla moo ne yarant bi waxal ni dëgg mu ngi jóge ci sa borom mhm. yàlla moo moom dëgg mhm. sëñ Tuubaa wax ni mhm. alxaqu saabitun wa amal baatilu fa in ala fa zaahiqun wa saafilu ba tey ca nax ju xadaa il na dëgg dafay sax lu dul dëgg nag bu demoon ba septième asamaan ñu koy séentam du tere bis dina màbb ba ñëpp xam ne du woon dëgg neen la woon kon dëgg ànd koog nit rek mooy dem moom mu soxla dëgg di dund dëgg. Mhm. léppam di dëgg. Mhm. nga xam ne taalibi bu mu àndal mosoo dégg ci waxam mu jaay benn taalibi. déedéet mhm. jaamu ji leen yàlla leen di wax muy li sëñ Tuubaa digle. topp ji leen sunna muy li sëñ Tuubaa digle. liggéey leen te bañ a yàq muy li sëñ Tuubaa digle. fonk leen seeni wéejur na ngeen jub di wax dëgg di ko jëf te mu ñor leen. lépp loo xam ne ay xoraafaat la mhm. ay tappaleek ay yuñ ci boole te bokku ci mhm. dalay wax ni lii bokkul ci yoon yi dégg nga vidéo bi ñu teg léegi mhm. mooy wax ni lii xamuñu ko bokku ci lu ci bokkul da koy dénoncé kon jëmm la joo xam ne dëgg rek a ko ñor jaamakatu bi yàlla la ba fii mu toll ci mage ñépp xam nañ ñu jullikat bu mag la fu mu toll mu ngi naafi la xaritu alquran la dundam yëpp foo ko fekk mu ngay kaamilam di jàng borom xam-xam la boo xam ne saa su waxee kàddo kàddoom ñëpp jariñu dëgg la te saa su waxee jariñ ñëpp dëgg la ni sëriñ Touba yare njabootam ci lañ ko yare gis nga fulku bee ñuy def ca njaareem mhm. noonu la ko saxale ca Thiès mhm. woo ñuy jàng fulku na ko sëñ Muntaxa di santaane ca njaareem jiite ko mhm. ñu la koy jiitee ca Thiès nga xam ne li fi sëriñ Touba bàyyi muy ndonoom ca loolu rek la nekk làq na ngërëmu sëriñ Touba ci bu wér kenn dul nattab li am na ngërëmu wéejuram yi ndax bu ñu fàtte ni Baye Saliou Touré 1980 ci njabootu sëñ Touba gi yebal. Mhm. te boobu sëñ Abdoulaat mooy sëñ Touba. Mhm. waaye daa wax sëñ Murtada. Mhm. ak sëriñ Saalix. ak sëriñ Chouaïbou ñoom ñëpp a ngi fi boobu jamono 1980. mu wax leen ni damaa bëggoon yéen ñëpp ngeen xool ku leen doy ci Thiès. ñoom ñëpp ñu xalaat boole seen xalaat. ñu ba sëñ Saliou Touré doy na. ko fa yebal de dana taxawu taalibe yi ci njub ci maandu ci jaamu yàlla ak liggéey ak taaral yoonu murit du fa def dara lu ñu xeebe yoonu murit ba ñu ñëwee ba sëñ Abdoulaat ni leen tànn ngeen ku seen xel dem mhm. ñu ne ko sëñ Saaliwu Ture mu ne man tam fekkoon ngeen moom laa tànnoon mhm. waaw ku ñeenti doomi sëriñ Touba boole tànn la nga doy leen ci ñu teg la ginnaaw bi la sëriñ Touba sëñ Abdoulahat tànnee mhm. teg la fii ci Thiès 1980 ak léegi ay fan la loolu 41 ans la mu nekk ko ci Thiès te man nga ni zéro faute boo demee Thiès ku fay jox ci diina yëboo ko ñëpp a ko respecté këru diina yëpp a ko fonk alaaxa bi mu am ak waa Tiwaawan am na lu ma ci xam ndax Tiwaawan laa yaroo da ngay gis ñoom sëñ Cheikh Tidiane si almaktuum daan ko seet si mu leen di seeti mu rafet lool sëñ Abdul Aziz si al ibnu noonu la demee woon ak moom sëñ Abdul Aziz da baax wéy juróom bu tedd wa noonu la demee woon ak moom Tiwaawan noonu lañ ko bëggee waaye Njaasaan noonu lañ ko bëggee soo demee waa kër sëriñ Ahmad Muniru Njëgéen noonu lañ ko bëggee loolu la ko waa Cana ba soppe mhm. kon këru diine yi wër Cees yëpp mhm. foo ci dem rek jox nañ ko ma mhm. jox ko cofeel te meloom moo ko may ndax dafa tënku ci li sëñ Tuubaa jàngale musu koo wàcc ñu teg ci bët du ci kàddu du ci doxalin du ci waxin du ci njabootu boppam gi mu yar dëgg la doom ju mu am jàngal na la yar la teg la ci yoon kon daal lañ koy ñaanal sëñ Xaamidun mooy mu yàgg fi te jàmbaar jàmbaari sëñ Saaliw la jàmbaari lislaam la jàmbaari sëriñ Tuubaa la moom daal sag la ci yoonu murit sag la ci lislaam yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ca kanam a kanam mu gunge ñu ci barke Serigne Saliou mi nga xam ne làq na ngërëmam ci bu wér lu kenn dul nattable amin amin amin jërëjëf euh, sëñ Ablaye euh, di ko gën a ñaanal ñu ngi koy ziare sëñ Serif Alwali euh, ñooñu nga xam ne ñoom ñëpp sëñ Saliou Touré leen defar sëñ Abdou Seck ñoom ah, soxna Seyna bu Jaw maa nga fa fee ca Thiès moom it ñu ngi koy ziare sunu yaay soxna Maada Thiam soxna Maada waaw mu sëñ Mëndumbe nga defoon jëwrinam wallaay wallaay moo jiite woon yëpp ci liggéey bi daan ko yóbbul sëñ Saliou sëñ Soy bu wallaay dafa daan dem milaaran wallaay ba tey jii mage rek waaye nee na ma du ma rate benn yoon waaw koy ziare baax a baax soxna Maada Euh, di nuyu sëñ Ahmed mbay ca New York ma nga ca Amérique di ñu seetaan li koo xam ne ni euh, moom fii la nekkoon takki der wax na ma léegi wax na ma démb woo na ma téléphone lu yàgg ndeysaan ne ma li tax ma jël sa numéro am lu ma doon expliqué xay na du waxu télé waaw waaye ci la gën a amee yaakaar ci ku ne hmm. ak lu mën a xew rek ànd ak sëriñ bi daa gën a wóor dëgg la ndax dañuy wax ne bala ngaa liggéeyal sëriñ bi wutil ku la compte door a ñëw ah, door a teg teg liggéey bi ndax kooka mooy doon seede sa ëllëg dëgg la kooka mooy doon mooy sa seede ëllëg dëgg la mu leeral ma ci yu xóot kon ñu ngi koy ziare foofee ca New York góorgóorlu rek ci sëñ Touba te nekk carte d'identité sëriñ bi si yëpp laay hmm. xas di gën waxtaane tey hmm. damaa bëgg sëñ daam affiché ko sëriñ Touba mi ngi ko tënkee hmm. wa ma tawfiqiya illa billah xasida gi mi ngi tàmbalee wajjahtu wajhi musalliman lillahi musliman lillahi wasaanani an qata in wallahi wallaay ndeysaan waaye xasida gi sëñ Ablaye hmm. dafa am ay bayit yoo xam ne nii kéemaan la yoo xam ne mi ngi ci biir hmm. euh, yaquudi lii busaaratan qadruhum qadaru man hmm. lahul baraaya wal fi'lu wa zaman nga xam ne mbindum sëriñ bi dafay feeñ xasida gaa ngi nii euh, dafay feeñ ci biir ni muy ñaanee son borom na ko bàyyi noonu nag en taytuhoo kulliyati bila nita waaw waaw da da nii la koy bàyyi tey incha allah eh, damaa bëgg nga ñëwal ma ci jëmmi baat bi mu ko tënkee nga xam ne benn bu ci nekk daf koo jël mhm. tëgg ci aw bayit mhm. muy wama tawfiqiya illa billah sëñ Ablaay waaw xam nga yàlla rek a yor jàmm mhm. yàlla rek a yor tawféex tawféex sëñ Tuubaa da koo firi woon tawféex tawféex waaw nee na li tawféex dëgg mooy nga soxla jëmm jëmm ji nga soxla yàlla dogal muy ab tëx muy ku tëx koo xam nopp yi du dégg mhm. nee na mu sori la lool nga toog foo xam ni jëmm ji nga soxlaa woo mënatoo koo woo rawe na la lu bari ay kilomètre ba dëkk ma fa mu jëm wan la ginnaaw di dem mhm. mënoo koo yuux ba mu déggati la nee na mhm. nee na am ku jaar ca wetam rek wokk ko di ko xoolal kee <laughs> nee na mu gestu rek nga ni ko kaay ni mu ñëwewaate loolu loolu mooy taw féex dëgg-dëgg lu waroon a jafeñ ci yow lool yoon wu yomb far feeñu la. far jafe far far yomb. Mhm. waaw. Mhm. kon tawféex day indi. Mhm. lu dëppaleeg li nga doon wut loolu mooy tawféex rek. waaw xam nga day indi wifaaq moo tax baatu tawféex ci arab day firi lu dëppoog la nga doon sàkku ci far mu yomb la lool fekk si la ci sa bopp. loola nag kenn yoru ko ku dut yàlla. alxuraan dani wa maa tawfiqee illaa billah amul ku yor tawfiix jooju ku yàlla sunu borom. su yàlla nammee mbir. mooy ñëw daal koy nekkal ci saa si mu nekk léeg-léeg ngay sonn ci mbir sonn ci lool fële nga dugg fa fekk da ngaa amagul tawféexe sunu borom rek waaye saa bu sunu borom dogalee tawféexam wàcc rek jeex na mbir ma moo lay wut si dootoo wut si mbir ma waaw loolu mooy tawféex sëñ Tuubaa nag jël ko nag xam ni comme jaam yorul dara yàlla rek a yor jaam mënul dara yàlla rek a mën ndax jaam bi dafay tële léegi jaam bi day fàtte jaam bi day juum jaam bi day dee jaam bi dafiy jóge mhm. jaam bi léeg-léeg mu bëgg lu mënta réaliser wu mhm. mu xam ni kon suñu borom la lépp daje ci moom moo yor tawfiix mhm. mu jël nag wax jooju yàlla ne wa maa tawfiiqi illaa billaahi amul ku yor tawfiix ci kudut yàlla suñu borom ci kàttanam la tawfiix nekk ci dooleem ci coobareem ci la tawfiix nekk sëñ bu tëgg ci xasida xasida gi nag mu jël ko xaraf par xaraf par xaraf wa maa billaahi mhm. waaw gi da ciy def xaraf mhm. miim gi da ciy def xaraf mhm. liif gi xëcc maa gi da ciy def xaraf taa tombe gi da ciy def xaraf eh, xaraf la waaw gi da ciy def bay nii an xata in wallaahi dafa wax ni jubale naa man sëñ Tuubaa sama xar kanam jubale naa ndax Ibrahima waxoon ni jël naa sama lépp jubale ko yàlla ngir mu gindi ma sëñ Tuubaa tam loolu la waxe ni jubale naa sama xar kanam sama lépp sama yéene sama xol li ci ëmb mhm. lépp day àndaale ci biir mhm. yéene jooju sëñ Tuuba am mhm. moo tax mu ni kon jubale naa sama lépp dégg nga mat du yeddi dégg nga musliman may aji jébbalu jébbalu lillaahi ñeel yàlla waaw yàlla moo waxoon ni bu leen dee mukk lu dul ngeen jébbalu ci ci man bu leen dee mukk wala tamutunna illaa wa antum muslimun bu leen dee mukk dégg nga na ngeen ragal dëgg-dëgg yàlla nag seen borom xaqa tuqaati yi waaye nag wala na illa wa antum muslimun waaye bu leen dee mukk lu dul ngeen jébbal ma seen bopp jébbal googu ñu def yàlla mooy xam ni jaam mënul dara ñu jébbal ko suñ lépp jaar ko ci ngeen ji diine di islam sëñ Tuubaa nag wax ni kon man sama jëmm ak sama xar kanam ak sama xol li mu ëmb yéene ko boole naa lépp jox ko yàlla àndaa léegi jébbalu ci moom jox ko sama lépp yaakaar ko ci lépp dëgg la bi ko defee nag wa saana nii mhm. ñoŋal na ma waaw mhm. ah, saana nii mooy ñoŋal na ma ñoŋal mhm. mooy ku la protégé ba nangam di dal say moroom du la dal yow ah, saa waaye am nga sens de yow lu tax rek booba la xamee ba léegi mosoo am problème nga ah, yàlla ma musal rek dalaa ñoŋal a tax mu ne wa nii ñoŋal na ma mooy aar na ma moom yàlla an xata in ci njuumte xoola xatax mooy njuumte <laughs> fi mu ne am na ñoo xam ni boo xoolee rek erreur faaw mu nekk seen dund mhm. te nit da ñaan nul n'est parfait mhm. nit mën ta ñàkk erreur mhm. waaye sëñ Tuubaa ne man génn naa ci loolu du ma def njuumte ci wax du def njuumte ci bind du def njuumte ci sama jëf sama lépp yàlla mi dul jiw moo ma fàggul loolu may ma ko xanaa loolu mooy waxuwa kaw kawnuhu lil yow ma farraxani farraxani wa an fuaadiya daala shakk wal xumam waaw daf maa dindil sékki sàkk ci sama xol mhm. dindil ma njàqare ci sama xol mhm. ah, kon loolu yàllaa ko dindi ci moom mhm. xam nga tey bu fekkee dindil ñu la sékki sàkka ak njuumte da ngay nekk di xel yaa naan lii la wala du lii loolu la du ko dal mooy mooy sàkku maanaam di def naan est-ce que moom la est-ce que du moom loolu du dal neen ne du ma dal yàlla ma ko dindi njàqare tam ju la teree nelaw metti lool ci yow suñ suñ tubaane yàlla teggi na ko sama xol farraxani waaw bi la ma defal lool ñoŋal ma. an xata in mhm. wallaahi an xata in. ci njuumte ak po. kat wàcc na mësula mooy mësula fo. Mhm. ku nekk dégg nay waxam. ku ne seere nay jëfam. Mhm. képp ku topp ndigalam doo tala mooy yàllaa ka fo. daal ni jëfam a gën jëfi ku ne. waxam a gën waxi ku ne. waayam a gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo. képp ku nee fa waaye ma. muy moya ka fo xomaa ka ma. képp ku nee fa waaye ma weddil ndegam gis nga ma fo. daal wurus bu mhm. yàggee am xomaat mhm. xaalis bu yàggee am xomaag mhm. lépp lu yàgg am xomaag xomaag xomaag a fii ruus ak a fo daal ni bamba wurus wu sell la waayum dërëm bu sotti la mhm. ku amee ab rax yaru la mhm. ab raxa bon day taxa fo taxa fo dëgg la kon gis nga mhm. sëñ bi nee na lépp luy fo ak lépp luy njuumte wala erreur yàlla mi tëlewul ci dara teggil na ma ko man muy wasaane ni anqata in wa dama cee protégé mooy wasaan damaa ñoŋal ci erreur ma koy def wala ngeen gis ma ci am pox sama dara du dem ci fo du ci sama kàddu du ci sama wax bi sama dara loolu yàlla ko defal leen ci tawféexam mu ne mat mu ngi nekk nag ba tey ci tawféexu suñu borom waaw ndax dina am weddikat bu defee naan a nekk ku dul juum mhm. ngi lay fàttali li mu ko tëg nge nag mhm. wa maa tawfiiqiya illaa billaahi mhm. su boobaa la koy tontu mooy yàlla da koo mënu la ne ah, loolu ma ci duggee rek bokkaale wala ma juum yàlla mën na lépp yàllaa ma ko defal waaw kon sëñ bi defalu ko boppam nee na yàlla moo ko defal dëgg la wa saana nii waaw mu ne maddu yaddi waaw mu ne maddu yaddi tàllal samab loxo na ma affiché xasida gi li xayrihi laysa yakun waaw sëñ sëñ bi na ma na ma na ma affiché xasida gi sëñ daam affiché ko ko waaw mhm. mu ngoog li xayrihi laysa yakun mu ni maddu yaddi mhm. tàllal sama loxo man mhm. waaw maddu yaddi mooy tàllal sama loxo bii man sëñ Tuubaa li xayrihi ci keneen ku dul yàlla fi mu ne nii ku ko waxoon balaa ngoon nga weddi sa bopp ku ko waxoon ku dul sëñ Tuubaa balaa balaa ngoon rek mhm. nga taxaw di wut audience ci Macky Sall mhm. <laughs> ku ko waxoon ku dul sëñ Tuubaa balaa ngoon rek nga xam li nga wut leen sëñ Tuubaa wut ak mhm. moom nag yàlla dogal na ba ko nguur wuy see ci lan ay wuur lañ la bëgg a booleel ñu teg la fi ñu tegoon sa wéejur di la jox ay jur di la jox xaalis di la jox àdduna la mu tontu woon mooy xasbiya bi wak dafay tubbi doyloo naa yàlla yàlla doy na ma mm-hmm. rus naa taalal sama loxo koy jeexal du ma jaxasoog bunti wóor ñi mm-hmm. soxloo ma seen dërëm mm-hmm. kon kooka da ngay xam ni lii mu wax moom dund na ko dëgg la ndax mu ni maddu yaddi tàllal sama loxo li xayrihi ci keneen ku yàlla lay sa yakkoon du nekk mukk ci man Sëñ Tuubaa nekkul te du nekk lay sa yakkoon nekkul te du nekk te du nekk sax mhm. ah, tàllal sama loxo mhm. ci keneen ku dul yàlla di sàkku ci moom mhm. loolu daal mësut nekk sama dund te du nekk ba abadan na waaw kon mu ni maddu yaddi li xayrihi lay sa yakkoon ñu ne ko lu tax mu ni ndax wa innahu moom yàlla xat xaada lii kun fa yakkoon jox na ma kun fa yakkoon eh kun fa yakkoon yàllaa ko moom su ko neexee jox ko jaamam yaqudu lii kun fa yakkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeexu Tabuk bi mu mettee lool. Mhm. mu soxla aboo Zarin ñëw. Mhm. Abu Zarin alxifaar yi ñëw. Mhm. xeex bi metti lool. waxtu njolloor ñépp sonn. mu xam ni aboo Zarin dafa xam stratégie xam yoon yi fekk boobu aboo Zarin daa amoon ngànt xeex siwul wenn takk ndeer di romb yanant bi ni ko kun Aba Zarin nekkal aboo Zarin mu nekk ci saa si Abu Zarin boroom xam-xam yi ci téere yëpp nee nañ keroog yanant bi dafa jëfandikoo kun fa yakun kon kenn du weddi ni am nañu ko am waaw kun fa bu ñëpp duggee aljana moom la ñuy amee képp ku dugg aljana kun fa yakkoon nga loo bëgg mu ne sëriñ bi ci place yu baree baree baree bari mu ni yàlla woo matal ma kun fa yakkoon jox ma yaquudu li kun fa yakkoon yi min ka bilaa xiqatin wala taxaaji fi place yu bari moo tax fii mu ni kon duma tàllal sama loxo di ko jox keneen ku yàlla sama borom te moom yàlla kat maa yey nag duma tàllal sama loxo di ko jox keneen ndax li ma jox tax yàlla woo matal na ma kun fa koo xam ne su ma bëggee mbir mu sotti nu may jëme ci jàmm boo xam ne mënta sottil dara di ko talal sama loxo kon damay dem ci ki nga xam ni su ma bëggee mbir jox na ma lay nekkal mbir ma loolay kun mbir mu bëgg mu nekk dana nekk ci kàttanu sama borom kon yàlla moo <laughs> tàllal sama loxo waaye wëlis ma koy tàllal keneen koo xam ni dëgg la ah, du dara waaw ay ca mu teg aw daani waaw kitaabahu ilal naan yàlla dénk na ma téeréem bi alxuraan ca suñu mhm. yàlla mhm. dénk na ma alquran ba biir aljana nag feeg demagunu aljana ñu ngi ci àdduna bii di dund ba mhm. keroog ñuy tàbbi biir aljana man la yàlla dénk alquranul karim loolu tam da koo wax waaye da koo jëf te ne sëñ tubaab bayit bu ma la wax fii rek mën naa la woon fi mu ko jëfe waaw xam nga wax naa la bayit bu njëkk ba damaa jébbal sama lépp yàlla déedéet xasida gi bu jeexee daa am yeneen bayit yoo xam ni oh, dafa correspondre ak xasida yi te ay bayit bayit la waaw mu nga woog yoo xam ni yëpp dama la koy officiel tey mu nga woog kon baax na euh, léegi na ñëwaat ci xasida gi yàqu di mu déedéet mu ne aw daani kitaabahu ilal jinaan dénk na ma mhm. téerim bii di alquran ba keroog ñuy tàbbi aljan képp ku dal ci kaw alxuraan di ko ŋàññi man nga ŋàññ képp ko teral alxuraan man nga teral ku fonk alxuraan man nga ko fonkal mhm. ku yëkkati alxuraan mën nga ko yëkkati moo tax njabootam ji ko dégg foon fekk alxuraan yi seen xale kii nuy fàttaliku rek nga xam ni li fii ginnaaw suba mooy màggalam di sëñ Abdul Ahad Abdul Ahad ku ne gis na mu defar kër ba mu jekk déewlu ca boppam de déewlu ca keneen alxuraan la ca déewal yàllaa ko fayee nag mu wàcc liggéey ñu def ko fa waaye alxuraan la ni woon faw mu wutal ko kër ndax fi ko sëñ Tuubaa teg wax na tam ni alxuraan dey am na lu ma may boppam sëñ Tuubaa lu keneen moom sëñ daal ni ndax am na ku ñëw fii xam naa turam xam turu ndayam ak baayam xam dëkk ba mu jóge woon mhm. da koo jox alquran ji mu téye ko rek di ko fari xan kasab tum ca ca baqara moom la ñu fàttee sidda mu ne wallaay bañ ko ubbee noonu la demee mhm. koo xam da koy téye rek xam li ci manqué nag mhm. yemoo cee kenn kon alquran dañ koo dénk sëñ bi yàllaa ko dénk moo tax di nga fekk ci place yu bari dégg nga mu wax ni raamal kitaabu kawnuhu ma'i bila tafaaruqin wa umri qad qubila dégg nga mu wax ni jaawartullaaha bi kitaabihi ilaa duxuuli jannatahu mhm. dëkkaale naag téere bi kon da moom mhm. dégg nga mu wax ni malaka nil kitaaba mhm. malaka nil quraana yooyu yëpp wax na ko malaka ni tanzila fu ne sëñ Tuubaa wax na fa ni ko yàlla moom loo alxuraan kon alxuraan jooju dañ ko koo dénk moo tax mu ni awdaani kitaabul kitaab kitaabahu yàlla moom loo dama téeréem ba ilal jinaan ilal jinaan wama li yaqtaara wa tayyabal jinaan ak la nga xam ni nag moom la ma tànnal parfois ma tànnal la dara te doo ko mën a te doo ko mën a am man la am maa la yéene xaamar bu neex am maa la yéene avion nga koy dawal ami duñ jóob maa la yéene nga am ay château pourtant yéene naa la ko waaye dama la ko mën ta jox yàlla nag moom mi nga xam moo may tànnal lam ma tànnal dama koo man a jox moo tax lam ma tànnal la ma jox tam <laughs> dégg nga wax ak lam ma tànnal yàlla dénk na ma alxuraan jox ma tam lam ma tànnal nga xam ne loolu la bëgg ci man man sëñ Tuubaa mhm. loolu dafa jàppandi ci man ba ma jox ko man wa tayyabal janaan ba mu ko defee nag mhm. ca la teeyale sama xol mhm. nga arab ni mu baree sew sew al jinaan al janaan janaan janaan mooy firi xol boo ko teg janaan ji firi ajjan ba mu ko defee ci la teeyale sama xol waaw nga xam sama xol teey na ndax koo xam ne yow yàllaa farale moo la farale yàllaay woo mat di la jox yàllaa la may boobu sa xol day teey mhm. doo am benn problème doo am stress doo am problème mhm. ndax yàlla moo teeyal sama xol moom mi ma wommatal alxuraan dénk ma ko waaye tam lam ma tànnal mu fexe ba ma jot ca loola mhm. mu nag kon nag tawfiiquhu tawfiiquhu raafaqani fii baatini kon tawfiiqi sunu borom muy lan lépp loo bëgg jot ca lépp loo bëgg mu jàppandi ci yow loolooy mooy tawfiiqam mun tawfiiquhu tawfiiqam raafaqani ànd naag man sëñ Tuubaa fii baatini ci sama biir baatin mhm. baatin mooy lan li ma nëbb te bët yi tegewu ci looloy sama baatin mhm. zaahir mooy li nga xam te ni fàng bët yi tege ci kon li nëbb ci man te bët nu cee tege xam naa ni tawfiiqu yàlla ànd ak man ne ci sama jëmm ji wax nga léegi bayit bu ko nuru mhm. ca muqaddamaatul amdaax wax nga ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muqaffa man xalaaniya yardaun wax nga léegi ni sëñ Tuubaa nee na damaa biir leer na ma ni yàlla ànd na ak man mhm. te ku yàlla àndal victoire rek ngay am mhm. feet dong ci ngay nekk lu baax dong ngay am dëgg la kon nee na euh, taw féexi sunu borom mhm. dafa ànd ak man sëñ ci sama baatin loo tax lu ma bëgg ci biir bu ma ko waxee mu nekk lu ma xalaat ci nit su ko su ko xalaatee ci bëgg ko mu nekk nga xam ni sëñ Tuubaa àgg na ci lu noppam dégg sax faf yàlla def ko àgg na ci wax mag ñi deen moo wax lu lu ngeen bëgg ndax li sama nopp bi dégg la yàllay def kooku da ngay xam ne tawfiq suñu borom moo nekk ci biiram. Mhm. mu ni wa zaahir yi ak ci biti. Mhm. biir daa am biti am. Mhm. extérieur dafa am intérieur am. mu ni tawfiq suñu borom. ànd naag man suñ tuubaa ci biti fi ci biir. fii baatini. wa zaahir yi ak ci biti. wa saal lii waaye yàlla sàmmal na ma ñoŋalal ma. samay dëkkuwaay. dégg nga. fi ne bu nekkee tuubaa kenn mënu faa yóbbu safaan bi. Touba kenn mënu fa yàq dara. déedéet Daaru Salaam kenn mënu faa yàq dara. Mhm. Daaru Muxti kenn mënu faa yàq dara. Mhm. ndax ay dëkki Sëñ Tuubaa ay bërëb ay mawaatin lañu. Mhm. nee na yooyu yëpp yàlla ko ñoŋalal. ma ko protégé. aywa ñu jàll. wala li xëyri kadarun wa maradun. walintaha. walintaha ilal jinaani xaradu gaaw. nee na wan na ginnaaw. jëm ci kudut man. wan na ginnaaw wane na ginnaaw. jëm ci fudul man lan. nëx-nëx nëx-nëx problème sur problème am na ñoo xam ne seen dund gépp problème la mhm. saa suñu xëyee rek nekk ci dang-dang mhm. du ñu noppalu ba keroog ñu dem ci bàmmi mhm. loolu nag man du ma dal am na ñoo xam seen dund gépp ay lor la rek nëx-nëx daal ak lor dem na feneen wëlif mu may dëgmal man sëñ Tuuba te dëgmal la ci man ba biir àjjana aw tagg wu rafet may tagg yàlla kon li may jul mooy xéewal yoo xam dama koy tagge rek. sama borom waaye lépp luy lor wala nëx-nëx dem na feneen mu ni faja ani bi busarin tadduumu waaw ni'mal karimu zul baqal qadimu mm-hmm. mu ni bett na ma fajaa mooy firi bett mm-hmm. mooy li yaa da defal surprise bu garaaw waay seet mm-hmm. surprise bu gën a neexe lii loolooy faja ani bett na ma kada bett mu ni neex ma amul morom alkarimu laa wax yàlla mi nga xam mooy aji tedd neex ma amul morom zul baqa moom mi boroom ak des bu fi ñépp jógee moom dafay des mhm. alxadib moom mi aji jiitu lépp te kenn mhm. xamul nu mu sosoo mhm. kooka laa wax ni bett na ma bi bu sëriñ te doom ci mbégte mu sax dëgg la mbégte mu sax laa am bis bu jot damay bég ku ànd ak man di bég su ne xoola cant gi nekk nun ñii di wax ci sa sant rek sant rek amuñu benn problème àdduna dëgg la amuñu souci yi suñu ñu ngi sant àjjana la ñuy dund ñun te demekuñu fenn dëgg la waaw loola loola sëñ Mbay Jaxate wax ni euh, fa jiiraanuhu tuubaa lahum xabla mawtihim mhm. dañ bay jaxate nee na dëkkandooy ci Tuubaa ñi ànd ak moom farak moom mhm. ñee naa leen ndax ñoom àjjana la ñu am mhm. avant ñuy dee ñoom avant ñuy dee ñu ci àjjana lañ dëkk yan xaaduli min maaliki takarrumu waaw wa min nabihi wa min nabihi ataanil karamu waaw na affiché mu ni wan xaaduli waaw wala yan xaaduli na xam nga woom mat na boo teg woom matu na mhm. in qaada mooy woom matu maanaam la ma soxla moom mooy woom mat boppam ñu mhm. du man maa koy woom mhm. moo tax mu ne yan qaadu lii woom matu na ñeel ma min maaliki min maaliki jóge ci sama boroom takarum takarumu xeetu tedd nga yépp xeetu tedd nga yépp a wommatu xeetu teraanga yépp a wommatu jóge ci sama boroom wuy sima mën sëñ Tuubaa wa min nabiihi jóge tam ca yanantoom ba yanantoom ba day yanantu yàlla Muhammad tey gën gi mindeef mhm. xeetu tedd da ngay fa nekk yëpp wamatu nañ ñëw ci ci man ataanil karam ataanil karamu ba mu ko mhm. defee nag la gën a tedd kon mhm. wala boog la tedd te te te nekk euh, ak teddange loola daal dikkal na ma man sëñ Tuubaa bayit wi ci topp nag neex na loolu si Ablaay waaw xaadali allaahu waaw jaza allaahu waaw bila adan wa ajra abdillahi waaw nee yàlla xaada wa mat na li a ñeel ma kan allaahu yàlla lu ma womatal jaza allaahi fayug moom yàlla maanaam yàlla ci boppam moo jël salaire am fayam womatal ma ko jox la nga xam ne yàlla rek ko mën a fay ab jaam loolu la yàlla jël womatal ma ko man a sëñ Tuuba te bi mu koy womal nag bilaa asan tegu ci wenn lor nag wenn lor amu ci dégg nga wa abdullahi womatal na ma tam yoolu ku mu nangu ni yow ab jaamam nga bu wóor mhm. yoolum lay jox jox na ma fa ngay jaar nag ba yàlla ne jaam nga nañ ko xool mhm. ñu de dégg nañu ci e, e, yenentu yàlla ba yàlla ni ni'mal abdu mhm. ni'mal abdu innahu awaab moom moom mhm. yàlla nangu na jaamam dégg nañ tamit subhaanallazi asra bi abdihi laylan waaw fa day wax na ko yenant bi baatu abdu bala laa yàlla xoon yow mi abdu nga sëñ Tuubaa nag ni lu muy wommatal kum ni abdu nga nag jox na ma yool booba bu muy xoole daal jaamam ba ni kii moom nangu naa ni sama jaam la ndax musuma bokkaale mhm. nangu naa ni sama jaam la mësta mooy sama ndigal mhm. kii daal gërëm naa ko mhm. sëñ Tuubaa nee na yool bañ koy fay yàlla def la jox na ma la yaquudu lii busaaratan qadaru man waaw lahul baraaya wal fiaal wa zaman mu ne wommatal na ma yaquudu lii wommatal na ma dégg nga bu saaratan mbégte xeetu mbégte yépp la ma wommatal xadaru man li ki ma ko wommatal nag mu ni mhm. kàttanu sunu borooma ma ko wommatal day bañ kenn di ci dugg naan mhm. naa naan loolu daa mën a nekk yàlla ku ku xam ni moo am xudra mhm. am iraada kàttanam ak ndogalam ndogalu sunu borom moo ko def waaw ah, te nag bokkoon na ci ponk ci ngëm yàlla juróom benn la ba ko juróom benn mooy gëm ndogal ndogal bu ñëw mu neex mu naqari da koy nangu kon sëñ bi nee na du man naa ko wommatal sama bopp de ndogalu yàlla nii dogal te kenn mënu ci dara la ko neex lay def moom wommatal xeetu mbégte yépp te moom yàlla ñoo ko nag la woo ñeel na ko albaraaya mbindeef yépp mm-hmm. loo ngeen fi gis yàllaa ko sàkk moo ko wal fi aalu jëf yépp tamit yàllaa ko moom jëf bu ngeen gis yàlla mm-hmm. jamono tamit xeetu jamono yëpp yàlla ko moom mm-hmm. kon kii moom jamono yi moom jëf yi moom mbindeef yi dund ci jamono yi ak di jëf-jëf yi yàlla moo ma kàttanam ak dooleem ak coobareem ak ndogalam mm-hmm. moo ma wommatal xeetu mbégte yépp azaba anni al mukarrimu al hadan wa xaadili adaafa ma minit mu ni sama boroom demal na mm-hmm. demal na mooy dindi na mm-hmm. wëlif man kana ko dindi al mukarrimu yanantu bee ko moom kon yanantu bi nga xam ni yàllaa ko teral teddal ko moo ma dindil ba mu dem feneen fudul man lépp luy njàqare sëñ Tuubaa du ma am njàqare mukk mukk mhm. ndax yanant bi yàlla favorisé mhm. mu gën ñëpp mhm. te ku ko liggéeyal fayu ko moo ma dindil njàqare dàq mu dem feneen futul man du ma dëgg ma ca waaw mu ni te kat euh, wommatal na ma nag xeeti xéewal yoo xam da koy mul mu ne a mu ne azaba déedéet mu ne lii xaada faw xamaa kasabtu ajra waaw wala yuwajjihu li nahwi zajra nee na wommatal na ma xaada lii mhm. wommatal na ma mhm. faw maa kasabtu lu ëpp fuuf la ma fàgguloon sama bopp mhm. yow nga fàggu ba noppi nag naan cëy man de denc naa un milliard far sunu borom ñoom ñu la may naa loo xam mënatoo ko wàññi yow léegi nee na man la ma fàggu woon yàlla wommatal na ma lu ko ëpp fuuf loo xam ni ëppante naa di ko xalaat ajaraat ci ab yoon li ma doon wut man yàlla may na ma ci yool fay ma lu ko ëpp te dootuma dëkkmal li nax wi ci sama wàll mhm. jaaj jajji xam nga jajji mooy ñu lay mhm. xas ci dara naan la mhm. da ngaa juum nag yaa def nangam loolu duma ma dëgmal kenn du ma jajji ci dara ndax defuma benn juum te may jajji lam yen hu nii makrun wala xaruuru waaw wan xaadalii fii aadati buruuru nee na lam yan hu nii du ma dëgmal maanaam du ma jublu makrun pexe kon pexekat yi nga xam seen yitte yëpp mooy nekk ci réseaux sociaux yi di jéem a pexel yoonu mut bi yemoon Mhm. duñ dem duñu am réussite mhm, mhm. ndax ñi leen magoon ñëpp da ko jéem dañoo yàqule ndax man kat du ma dëgmal mukk du ma wut si mukk makkurun pexe wala wuruurun du caaginu du caaginu waru xam nga waru mooy jàpp ne li nga nekk noonu la fekk du noonu du kon nee na pexe ak woru duñ ma duñ ma duñ ma dégmal man sëñ Tuuba mhm. te dina wommatu jëm si ci man mhm. li bépp xeetu mbaax ak njekk mhm. fii aada ci samay aada xam nga luy aada habitude xam nga dafa am lu ñuy wax ay am lu ñuy wax ay aadaat la ñun lii daal di lii lii moom aada la di da koy def rek waaye euh, du diine aada la nee na sax man aada su ma ko doon jëf tey aada moo xam may def nangam loo xam ne aada la du tere yàlla di ma ci wommatal di ma ci defal ay xéewal ak ay may ak ay mbaax dama defoon sax aada day nekk lu baax ci sunu borom. sunu borom du koy bëgg. Mhm. mu dellu ñëwaat ne aqaama nii. Mhm. fii ma yëkkoonu radia. waaw hanni bihi man xaadali ak radia. waaw ah, nee na yàlla taxawal na ma. Mhm. yàlla ko mu taxawal nga taxaw. waaw yàlla taxawal na ma. dëgëral na ma. jàppale ma taxawal ma. ci lépp loo xam ni. day waral ngërëmam. luy luy waral mu gërëm ma rek. yàllaa ma ca kàttanal jàppale ma ca taxawal ma ca. li mu ni nag moom yàlla mi nga xam ni matal na ma ci daraja yenantu bi alayhi salaatu samay xemmimtiif axraab bi yaa mooy samay xemmimtiif yi du ko bëgg mhm. samay choix yooyu la yàlla jox samay mhm. préférence mhm. mu ni bientu ayca bientu tiyaara bixtu tiyaar yi waaw bixtiyaarillaahi waaw waaw nee na jaay naa jaay naa samay tànneef jënde ko tànneefi yàlla samay tànneef man wutuma dara waaw li yàlla wut lay wut man man yi ma waroon a tànn naan yii laa choisir mhm. dama ko jaay jënde ko li ma yàlla tànnal yooyu ma dàqal sunu boroom nag daal di may nee na mhm. ñoŋal wëlif lépp luy waral ay caaxaan ay fo mhm. lépp luy waral ay fo ak i caaxaan sunu boroom moo ma ca ñoŋal ba du ma du waaw mu tekke ni ataytuhu ataytuhu kulliyati bila nizaa waaw wasaana nii am naa. naxaasu zawur ni zawur ni zaa. ok mhm. nee na jox naa ko. Mhm. moom yàlla jox naa ko. kulliyati sama lépp. Mhm. kulli nag waxoon naa la ak kulliyati bokkul. bokkul déedéet waaw kulli moom. man nga lii ak lii. yi moom lu ma am ñooy gis rek. jox naa ko yàlla desalu ma dara ak moom. aataytuhu jox naa yi sama lépp. bilaa nisaa ci lu dul ñoddeeti ko ci moom. rocciwaat nisaa mooy rocci. joxe dara par di ko nocciwaat di ko jël mm-hmm. du ma dal wasaana nii te fegal na ma mm-hmm. am maa naxaa zawoo nisaa mm-hmm. la nga xam ni ñay xëccoo la ñuy xëccoo xëccoo sëñ Tuubaa du ko def moo tax bépp murit bën la murit laa dajeeg mbokk muritam ñuy xëccoo ci mbir seen murit wéru muritub sëñ Tuubaa bu gisee mbokk muritam mu gën a bëgg mbokkam du lu xëccoo sëñ Tuubaa nee na lépp luy waral ay xëccoog coow du ma dégmal yàllaa ma ci ñogal moom yàlla mi nga xam maa ko jox sama lépp te dootuma ko nocc moo ma génn ci lépp luy xëccoo mhm. mu ne li wajhil karimi qad axadtu waaw maxtaari lii wahaak sahu nabattu waaw nee na nag ngir jëmmam dong moom yàlla mhm. waxuma ngir jëmm kenn ngir jëmmi yàlla sama borom képp mhm. ñu ni waaw mii aji tedd xat axastu ci laa jàppe lu may jàpp yàlla tax ma jàpp lu mat a bàyyi xel nga koy jàpp nga jàpp ko te yàlla tax koy bàyyi te la wóor ne yàlla tax nga wàcc jullit noonu lay mel mu ni kon dinaa jàpp man sëñ Tuubaa ci dëgg-dëgg ngir jëmmi yàlla mi aji tedd képp moo tax may jàpp te bu may jàpp tamit damay jàpp a lii la nga xam moom la ma tànnal moo gën muy lislaam waa ak saho contraire loolu nag muy ay caaxaan nag ak kéefër contraire ba mu ni nabastu kon nabastu ak saho mooy dàq naa ko sànni nabastu mooy dàq sànni waaw nabasa mooy sànni na kon sànni naa lépp loo xam ne yàlla nekku ca mhm. wala lislaam nekku ca jël la yàlla nekk ak lislaam tànn loola jàppoo ngir jëmm yàlla lahoo xitaabi wa li xayri wajjaha mhm. xayra ridaahu wa waaw mu ni lahoo ñeel na ko xitaab bi samay waxante mooy samay wax ak moom wax yi may wax yépp yàllaa ko moom keneen moomu dégg nga wa wajaxaa li xayri xayru ridaahu te dina dëkkmal ci keneen ku dul man sëñ Tuubaa lu dul ngërëmam lu dul ngërëma yàlla keneen lay dem ci moom waaye du dem ci man wantaxaa li arida waaye nag luy ngërëma yàlla dina ma dëkkmal dina ma wut si ma waaw ñeel waaw mu ne adhabta kullama yachu aw yadur waaw li xayri nahwi laysa yanhuwan yadur waaw mu ne nag yow deñal nga yow yàlla demal nga lépp loo xam ni demal nga lépp loo xam ni dafay ñaawal mbir Mhm. lépp lu ñaaw wala muy lu warul rek wala luy lor dindi nga ko demal nga ko li xayri yi mu jëm ci keneen ku dul man wala li xayri nax yi mu jëm ci feneen fu sama wàll lay sa yan xóoni ya durru mhm. mu ne lépp luy lor du ma dëgg ma man sëñ Tuubaa mhm. lor daal du jëm sama wàll du jëm sama kër du jëm sama njaboot hadiyati muusilatun lillaahi haasimatun min dararin wallaahi nee nag sama hëddiya waaw sama hëddiya man sëñ Tuubaa mu ne àgg na ci yàlla de waaw li ma ko jox muy sama xëdd ya mhm. àgg na ci moom bu wér a mhm. àgg na ci yàlla lu ñu àggal la ci yàlla sama borom mhm. ba pare tam yàlla musal ko ci lépp luy lor ak fo yàlla di ko cee sange lépp luy lor ak fo sama xëdd ya ànd ak lor du ak fo du àgg na ci yàlla loolu mooy xësi dëkk eh, wa ma tawfiqe illa billah eh, subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun jërëjëf sëñ Ablaye eh, sëñ Ablaye dañuy faral di gis sëriñ bi buy tënk ak xasayda ni mu ko defee ci way naka la ala xuluqin azimin wa kaana haqqan nuuru daare ni saadat daare ni tonfatu lenn lu ci nekk dana am lu mu ko tënkee ci biir tënki bi noppi day amaat tarjumaan tarjumaan jooju ci lay boqal li nga xam ne ni mooy secret xasida gi la muy sàkkoo ñaan ci biir xasida googu la mu bëgg suñu borom defal ko ko nga xam ne loolu tiitraas la boo xam dafay am sëñ daam indil ma benn euh, tarjumaan euh, indil ma ci benn fi muy wax kataballahu tabaraka wa taala euh, mi ngi nii kataballahu tabaraka wa taala ana katiba hadihi al urufi jahalahu lahu tabaraka wa taala hujjatan ala nasara wal muntathirin wallahu ala ma naqul wakil waaw nee na xam nga kataballaahu yu yéeme la mm-hmm. loo fi fekk rek mooy lu ko yàlla may ba jox ko ndigal ni ko bind ko mm-hmm. maanaam yàllaa koy may ba pare ne ko lii ma la may bind ko mm-hmm. jaam ñi xam ko ci yaw su boobaa bu ëllëgee yow mal xiyaam kenn du taxaw naan wa xamee mu woon ko nii lay du am waaw ndax sëñ lim ci jublu mooy sant boroomam mi ko defal tawféex jooju ngir ñëpp jot ci mhm. njariñ laa ñëw leen jariñu mhm. boo amul keñaan mhm. te bëgg a jariñ ñëwal jariñu soo taxawee di weddi nag lu ñu la wax nga ni mënta nekk su ëllëgee doo taxawaat naan xawee moon ko nii moo tax moom bind na yépp yi ko yàlla may te décrété ko te dootuñu ko effacé ni yii yàllaa ma ko may te na ko affiché mu ni kon kataballaahu na ko affiché kataballaahu tabaaraka wa taala mu ne yàlla bind na ci kàttanam ak coobareem moom yàlla mii aji barkel ci lépp tey aji kawe ci lépp ni anna kaatiba haasihil xuroof ni man sëñ Tuubaa mi bind xaraf yii kon yàlla moo dogal loolu lii muy bëgg a wax yàllaa ko dogal nin def mënu ko dogal nee na yàlla dogal na ni man sëñ Tuubaa mi bind xaraf yii jaalahu llahu tabaraka wa hujja alal nasaara mhm. yàlla def na ko muy ab pakk défense mhm. wëlif mhm. nasaraan yi di ko mënal dara kon ñi ñi réer mooy ñi nga xam ne ñoom dañ naan nasaraan nangam nasaraan bi mënta agsi ci sëñ bi sëñ Tuubaa sunu boroom a ko def muy pakk muy défense ci kaw nasaraan yi diggam ak ñoom ak ñi nga xam ne dañuy nasaraan nasaraan mhm. ñaar yi ma taxama ngoog mhm. bële mooy at nasaara bële mooy almutanasiriin mhm. mooy ñii nasaraan nasaraan lu léegi saa boo xëyee gis loolu sax li sëñ Tuubaa waxoon ñoo a bañ naan way avec la république il faut éviter certaines choses c'est pas bon avec la république nangam nangam c'est contradictoire la république on est dans un pays laïque euh, nangam nangam ñooñu dañuy nasaraan nasaraan sëñ Tuubaa nee ma may pakk défense ko jaar ci man te tënku ci li ma tënku nasaraan du la man a yàqal dara ñii nasaraan nasaraan duñ la mënal dara te duñu am ci man wàllu mukk mukk ne wallaahu alaa maa naqulu mu ne lii ma wax nag yàlla mooy sama seere xam naa yàlla bu baax maa ngi ko gën a xam mhm. te lii ma wax na xam waxee bakkan mhm. lii moom yàlla laa ci jël seere mhm. wallaahu alaa maa naqulu loolu moo mooy mooy daan li ñëpp sëccu waaw day wax lu kenn mës dégg fara ni ah yàlla la jël seere de lawul ma fuus ni mu ko doon jëfandikoo ci ay bindam. waaw tarjumaan jii ci bëgg topp dana ci ñëw. waaw ni mu ko doon jëfandikoo ci mbindam. waaw mu ne kataba allahu tabaraka wa taala fi lawhi lmahfuusi anna katiba hadihi alxurufi qaddamahu rabbu ala jamii alaalami waaw mi ngi nii. kataba allahu tabaraka wa taala bind na moom yàlla mi nga xam ni moo dogal lépp lu am moom. Mm-hmm. te ci lépp not lépp. Mm-hmm. fu mu bind fii lawxil mahfuz. Mm-hmm. foofa nag. <laughs> weddikat yi duñ fa àgg moom mm-hmm. lawxul mahfuz foofa moom àlliwa jëy suñu borom di dogale mm-hmm. fa la def dogalam yi mm-hmm. lawxu jooju nga xam ne tey dañ naan xalam ak lawxu la njëkk a bind waaw boo demee ci téere bu ñuy wax ba badaa'i zuhur fii ay duhur téere bu am solo la uh-huh. da gis xalam gis al lawxu bu leen yàlla di sàkk yi xewoon foofa yàlla njëkk a def mbiram mu sax fa te kenn du ko dindi muy àlliwaam jëmuy binde ak xale ba jëmuy bind neena sunu boroom dogal na bind fa ci ndogal ni anna kaatiba haazihil xuruuf ni ki bind xasida gii muy sëñ Tuubaa xaddamahoo jiital na ko rabbahoo boroom alaa jamii alamin ci mboole mbindeef mhm. nee yàlla jiital na ma ci mboolem mbindeef waaw waaw loolu euh, jërëjëf sëñ euh, ci leeral yu am solo yi ndax dafa am Hmm. luy jiitu xaside gi muy tarjumaan gi ah. ginnaaw bu mu defee tëgg bi ba noppi hmm. ma am ay bayit yi ngi ma bëgg a cuqi ndax tey dama bëgg bu ñu jeexalee xaside yi hmm. eh, dama bëgg tey ma barkeelu nga mosal ma dara ci maam Cheikh Issa Diène tey damaa bëgg nga dugal ma ci moo tax dinaa dugal sëñ Cheikh seen raaya léegi ginnaaw bu ma jëlee ay quelques téléspectateurs ci ligne bi lay doon eh, mais xaside gi bëyit wi sëñ Ablaye dégg nga li mu wax daf ne xamaa bilaa danaa anil qitaali wa kaana xaqan wa anil jidaali waaw ana sëñ daam affiché ko euh, xanaa sëñ Abdou naanagul kafe euh, ama bilaa anil qitaali hmm. wa kaana xaqan wa anil jidaali mhm. mhm. bilaadana mhm. wa kaana xaqan wa anil euh, nekk na maanaam aaral na aar na ma bilaadana aar na kon sunuy réew sunu réew yépp xaar na sunu réew yépp kana ko aar yàlla sunu boroom mi nga xam moo wax ni war na ci moom mhm. mu dimbali wéy gëm ñi mhm. yàlla moomu xaar na sunu réew yépp mhm. ci xeexkat yi yàq ak woy bañ yi waaw alqital mooy ñi nga xam ni ay terroriste lañ dañuy dugg ci am réew indi fa mu di raayante ak di dekk ay kamikaze ñooña sunu boroom moo ma moo aar sunuy réew ci ñoom mu ni nag kon dafay war ci sunu boroom moomu nga xam moo ñu aar mhm. mu aar ñu ci euh, xeexkat yooyu ak ci ñiy dàggasante maanaam ñi nga xam dañuy ñëw di werante ka dàggasante ak ñi nga xam dañuy xeex dafa war ci suñu borom mu aar ñu ci moo tax suñu borom aar nañu ci mhm. mu aare ñu nag la mu waxoon ni wakaana xaqan mhm. day war ci yàlla sunu borom mu aar way gëm ñi yàlla moo di protéger loolu la jël nag aare ma ci ci walif samay réew xeexkat yi di fa dugg ak ñiy dàggasante yooyu yëpp duñ ko mënal dara euh, bayit ak ommatu la ak parce que fële dafa waxoon ne alamtanil xayba xatta sirtu muntabian antal alimu alladi dafay mel ni sëñ sëñ daam beneen bayit bi ci topp dal cee ñëwaat tey nag mu a yaqoodu lil baaxi ruyuban laa tura yaqoodu lil baaqi ruyuban laa ruyuban fi abadin wa inda xayri lam tura nee na albaax yi mooy yàlla mi aji des ci àdduna bu fi ñëpp jógee mhm. ñëpp ay faatu moom ku dut mhm. yàlla dañ fiy jóge mhm. yàlla du fi jóge nag moom mu ne albaax yàlla moom nga xam ni moom mooy l'éternel du fi jóge nga xam ni moom moo am éternité du fi jóge yàlla moom wommatal na ma ruyoo ban ay xaybu mooy yu nëbb yoo xam ne jaam ni mënuñu koo xam wommatal na ma yooyu xaybu yoo xam ne nag laa turaa dee fee su ko gis dee fee su ko gis fii abadin ba faw inda xayri ci kenn ku dul man mhm. walam turaata duñ ko te gisuñu ko tam ci kenn ku dul man yàlla daal woo woomatal na ma ay xay bu yu nëbb yoo xam ni mhm. gisuñu ko ci kenn ku man man rek mën a gis yooyu te du keneen dootu ko gis ku dul man ba keroog am na yu lay yoo xam ne boo ko jeexee ci sëriñ bi rek nga koy gis waaw kepp moom rek waaw bari na lool sax <laughs> ni doomam yi mel rek benn la ci damay wër ba bëgg a dee mosuma gis ko am doom yi mel ne yu sëñ Tuubaa am sëñ Murtala nga xam ne comme ci am rek da ngaa mat mbindum sëñ Tuubaa da ngay wër ba bëgg dee jàng bi bëgg dee saa boo téyee bind sëñ Tuubaa ni ci sëñ Tuubaa daal moo ñàkk morom dëkkub sëñ Tuubaa Tuubaa boo ko càmbaree xool ko ni chëtëtëtëtë dëkk bii bu la waxee ñu la bi ko sàkkee léegi amagul 150 ans moo mel nii loolu benn la ci tukkib sëñ Tuubaa bi amul ku ma sa génn am 24 heures tubaab te pare woo amul kuy dajeeg nasaraan juróom-ñaari at yu mat te yàquñu tawhiidam ku dul yow sëriñ Tuubaa kon li mu boole bari na kon lu ci nekk rek lu may gis sëñ Tuubaa du ma gis keneen dafa bari dafa bari. xam nga amul lennam lu niroog lenn kenn loolu daal di dëgg lennam niroog teg lenn kenn sunu borom a ko defal loolu lenni sëñ Tuubaa niroog teg lenn keneen sañ Tuubaa rek moo am loolu. xam nga sëñ Ablaye boo xoolee raaya. waaw bi muy tagg yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw ci lahoo xel mi waaw du lahoo minal ilmi de sëñ Cheikh. waaw lahoo min al xel mi damaa bëgg sañu seex ñëwal ma ci bayit woowu waaw maalan yahwihi jabalun wallaay ndeysaan laaxal ada fil baraya wahuwa sabaabu sañ seex bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin ñëwal ma direct ci lahoo min al xel wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman loo min al ilmi ma lam yahwihi jabalun nee na lahoo ñeel na ko minal xilmi ci ak sagoog lewet maa loo xam ni lam yax wi mësu koo làq jabalun benn montagne laqal asaa fil baraya wa wasaba lu tax nga wax loolu mbàkke mu ne laqal aba ndax daana rencontré daana dajeeg ay lor euh, fil baraya ci mbindeef yi mu nekkandooloon ci àdduna wax wate moom sabaaru muy muñaakoon mës ta jàmbat إن رسول الله سيف يستداء به mu ne yonent bi daal dafa mel ni rek jaasi joo xamante ni nii sunu boroom moo ko mbaral boppam muhannadun min suyufillahi battar jaasi la joo xam ni dees na nàndaloo ci moom jaasi la joo xam dees na leerloo ci moom waaye nag sunu boroom moo jël jaasi jooju eh, daas ko ba mu ñaw ci jaasam yi nga xam day dagg rek fu mu toll mhm. lilkulli min jumlatil axyaari martabatun mu ni képp kenn ci gaa yi yàlla yi képp kenn ci jaami yàlla yi képp kenn ci tànneefi yàlla yi am nga martaba am nga daraja lakinnama ahmadul muxtaaru muxtaar waaye bul tudd daraja yi kenn ba méngale kook yanant bi koo mën di tudd na ko ci génne moom ne tuddal daraja ku ne waaye yanant bi nag moom la yàlla tànn moom kenn melul ni moom salla alayhi lasi fil jëri xaddamaho mu ne yàlla na yàlla mi nga xam ni moo ko jiital yàlla na yokk xéewal ak mucc ci yenant bi musalliman tibqa ma yahwa wa yaxtaaru te yàlla na ko yàlla wommatal loo xam ni day tolloo kem la mu tànnal boppam ak kem la mu bëggal boppam wal alimin bi ixtisaasin xad xawaw sarafan nee na tamit di ko ñaanal saabaam yi nga xam ni làqoon nañu ay jagle ak i may jële ko ci liggéeyal yonent bi alayhi salaam li annahum lil wara saadatun axyaar ngir ñoom saaba yooyu dañoo nekkoon ay tànn ne kon ay sang ñeel jaam ñépp وسهبي العر من أقران أم سبخو saabaam ya ko doon gunge nga xam ni dañoo jiitu woon seeni maas te liggéeyal yanant bi moo leen ko mayoon is baaduhum haajaru wal baadu ansaaru mu ndax ñenn ca ñoom dañoo gàddaayoon génne màkka waaye ñenn ñoo leen recevoir ci madinatul munawwara lahum ladallaahi taxsiisun bi maa wafiru mu ni am nañ ca yàlla seen borom ay jagle yoo xam ne ñoom rek la ko yàlla joxoon ci ay xéewal humun nujuum li xawmin fi dujaa saaru ñoom saaba yi dañoo meloon ni ay biddiw ci asamaan yi bu lëndëmee ba lëndëm kurus ni biddiw di mel la saaba meloon ci nguuru sunu borom lahum la dallaayi talwiirun safaa ilalal mu ni nag sunu borom mayoon na leen ñoom saaba yooyu jàngoro joo indi ak njàqare loo indi ñu mën la ko effacer ba mu set wicc isaayal ku ladna suñ wàq daa ndax képp kenn ci ñoom daana dindi tër tër daana dindi tilim daana dindi ràgg ci mbindeef mu leen dëgmal binnus للخلق والإيمان قد jubiloo mu ne ci seen laabire ak ci seen mbaax seen ngëm yàlla dañoo meloon ni ay montagne ci kawe turan waxaf di la si alahu kuffar barkala ñu daan suufee lépp loo xam ne yéefar yi ñu ngi ko daan yëkkati jërëjëf sëñ Cheikh seen daaya euh, sëñ Ablaye euh, xam naa ne masrabu Shaafi moom faaw nga jëlaat ko moom waaw masrabu ndax moom euh, kéemaan la ci goo xam ne nii doy na waar sëñ Dame Euh, mën nga ñoo ubbi ligne bi euh, su ko defee ñu jël euh, ay téléspectateur bala ñoo ñëw ci tey kenn koo xam ne nii dafa bokk ci ñi nga xam ne sëriñ bee tàggatal boppam hmm. mu am cër bu rëy am wàccuwaay nag muy doomi sëriñ Ibrahima Jenn ji ak soxna Mariama Diop hmm. gane àddina ci atum 1864 hmm. insha allahu taala tey foofu lañu bëgg a dugg jeexale fi jataay bi tey nag sëñ Cheikh dugg nañ fa rëy rëy rëy tey moom euh, fi ñu dugg yaakaar naa ne murit yëpp doo nañ xam ne dugg nañ kër murit yi nag doomi sëñ Ibrahima jenn jii ak soxna Mariama Diop kenn melut ni moom ci pas-pas maam Cheikh Issa jenn dafa yoru jëmm yoru melokaan woo xam ne ci yoonu murit hmm. ci jëfal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul hmm. ba sëriñ bi def ko ni mu ko def tey ba tax tey sëñ Ablaay boo ne Cheikh Issa ñu ne jenn yaaram lay day sax ñoo bokk sant laataa mu ñëw ci sëriñ bi nag melul sant wi sant wi melut noonu de waaye moo yóbbu njenne foofa dëgg la moo tax tey foo ne foo ne diw ñu ne la jenn yaaram daal di jóg kon nag euh, tey foofu lañ war a jëm incha allah ginnaaw bu téléspectateurs yi duggee ndax tey 23 heures ñu tëj Euh, maa ngi ziyaar baax sañ Alsaan Guèye di ma nekk fële ca euh, Ndula hmm. di taalibe bi sëñ Amsatu Mbàkke moom Sëriñ Chouaïbou ah, di takk der gendarme la di ku baax ku am hmm. pas-pas di hmm. ku bëgg sëñ Tuubaa itam nag moo ko sëñ Xalifa ak Pierre Moussa Thiaw sëñ Ablaay waaw suñu soppe ñu ngi koy ziyaare di ko ñaanal ndax euh, taxawaay bi mu xam ne ne am na ko ci sunu jëmm moom ñoom sëñ Khalifa gaa nuyu sëñ As Diagne ca Long Island ca Amérique. ca mu ngi jotal nuyoo. am na mbokk mu ñuy wax sëñ Modou Faye Gomaay. waaw sëñ Modou Faye wala ku ko ziyaaral bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Amadine Diop bëgg Serigne Touba ak Cheikh Abdoulaye Diop bu Serigne Touba. sëñ Thierno Gaye mu mu sëñ Abdoulaye. Gaye. waa Diop lay ziare baax a baax a baax Gaye Gaye Gaye. te yokk sunu cofeel amiin gay di siyaare sëriñ Cheikhouna Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad wallaay ndeysaan ci bisub sëñ Ablaat bii di ginnaaw suba wallaay di ci ñaanal jullit yépp nag ak taalibe yépp mhm. ndax sëriñ Abdoul Ahad moom nijaay boo wàññee télé bi ci sa ginnaaw dégg-dégg bi dana gën a neex ku gisam jub see ku dib ku ne war ngaa bét ndaxte ñépp moo leen teg ci yoon kon ñu di ko santaat tey ñaan yàlla yokk ay leeram amiin tey yàlla xeer ñi ci rek bëgg Sëriñ Tuubaa nag abadan wallaay ndeysaan oh dafa may liggéey naan na xam nga 88 moom. Euh, su gaa yi jógee sëñ Thierno Gueye sëñ Medoune Seye borom tawféex. ndeysaan ku baax a ngoog sëñ Hamidou. ndeysaan ku baax kuy jëf ci lislaam. ndeysaan kuy dimbalee. ndeysaan yàlla na ko yàlla sàmm te dolli teraangaam. amiin ñu koy siyaar di siyaar tam sëñ Ndiouga Jong. amiin fii ci HLM. Euh, marché HLM sëñ Ablaye suñu nijaay ji génn muy sëñ Thierno Gueye. sëñ Thierno Gueye waxtu bu nekk mi nuy woo. ak a baax tam yitte ci ñun moom sëñ moo Cissé lool ak ñaan gim ni ñaanal ak sëñ Mor Cissé salaamaaleykum maaleykum salaam. soxna si noo ngi lay ziare. sëñ naa la. yàlla yàlla nangu ziar te boole ñu ko. Eh wallaay ndeysaan fii la laa nekk. Touba ñu ngi lay ziare baax naka waa Touba. Eh, ñu ngi ci jàmm bu baax. soxna Ndeye Diop noo ngi lay ziare Diop. maa ngi lay ziare bu bu ne nag. jërëjëf Diop. yéen bu baax baax. noo ngi sant sëñ Tuubaa bu wér. waaw dama doon dama doon ziar rek. wallaay yàlla naa suivre la jot la ko yàlla dogal. jërëjëf. maa ngi lay ziar moo tax tey ñu ubbi ligne bi rek. ñu mun a jot ci téléphone yi mën a jote fii rek. <laughs> maa ngi maa ngi seq en face euh, maam Cheikh Issa Diène lan lan nga ci xam. ah di ma ci xam moom. bëgg Sëñ Tuubaa rek ndeysaan jërëjëf soxna si bég nañ soxna fay Fall nekk fële ca Touba soxna fay ñu ngi koy nuyu bu uh-huh. baax eh, ma nga ca ndaamaatu maa ngi lay ziar baax maa ngi jot bataaxalam eh, sëñ Thierno Gaye ndeysaan ak uh-huh. sëñ Mor Cissé uh-huh. ñoom dañuy dañoo dañoo am ci ñun yitte ak sëñ Abdou Lahat Male eh, sëñ Abdou Lahat eh, Touba Pono. waaw waaw ku baax sëñ Abdou Lahat Ndiaye. sëñ Abdou Lahat Ndiaye. waaw ñu ngi koy ziar tax ma koy fàtte. ak soxnaam soxna Ngoma Ngoma Toop. soxna Ngoma waaye maa ngi nuyu soxna Asou Diagne. jël ko nekk sama jarbaat bu baax bu nekk ca Maryland ca Amérique. ndeysaan nekk man teraanga te bëgg sëñ Fallou yàlla ko yàlla yokk. amiin salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar. ñu sëñ Abdou Seye yow de sëñ Abdou xanaa sëñ Abdou. kii nu bëgg a jëm de xanaa moom. Eh, eh, yéen kay fi ngeen jëm fu yaatu la fu leer. ñëpp mën a jaar. dëgg la. ginnaaw bu ñu jaaree sëñ si dinaar ba noppi di ko ñaanal fan wu gudd. sëñ si dinaar sunu xarit sunu sëriñ. ak a baax ndax mooy sunu sëriñ ndax man sëñ naar jenn moo doon sama sëriñ di fi làqoo ma jokk ci moom. wallaay ndeysaan ndax foofu laa doon tarbiya ci kër sëñ naar jenn. ndeysaan. waaw moo tax euh, tey bi ngeen waxee jëmm jooju dama cee kontaan lool wax dëgg sëñ daam dina ma affiché léegi fa topp sëñ Cheikh maam Cheikh Issa ak sa ñun xam ne tey fa mu jëm amin amin na dama la dama laa sopp ndax booy waxtaan sëñ Tuubaa mbégte mi ngeen di àndal alhamdulilah li ngay kiyee li ngay kon li ngay nit bëgg alhamdulilah ndax da ngay bëgg nga xool day kontaan xam nga xam nga xam nga loolu fu ñu ko teg mm. sañ Tuubaa moo ne mbégteem ki ma bëgg du dakk mukk waaw waaw la ko waxee alamu man xasada nii laa yan farim wa bisru man yuxibu nii laa yan xarim mi ngi mi ngi feeñ baax maa ngi ziar bu baax sëñ Cheikh sëñ Cheikh tedd moom tamit waaw wallaay ndeysaan wallaay waaw ah, sëñ Cheikh tedd say sama rakk moom it incha allah maa bu baax a baax wallaay wallaay ndeysaan ziar sama mbag yi yëpp sëñ Moussa Sey sëñ Cheikh Sey ak sëñ ah, ñoom ñëpp la ñu sëñ naar jënd moon yaa sama juru góor lu mu mosaan am jox day wax ni bu dee góor sëñ naar la koy jox ndeysaan waaw ñun ñëpp ñun ñëpp a dem daara ñëpp donc ñun a dem daara jërëjëf eh, bu baax a baax yàlla na ngeen gudd fan te ànd ak wér rek amiin amiin lool bëgg nañ bu baax dëgg la ñu di bu baax a jërëjëf ñu di ko ñu di ko sant bu baax a baax di nuyu waa sañ naar jenn yëpp tàmbale ko sëñ Sidi Naar sunu sëriñ bu baax boobu nga xam ne daf ma naan daf may yóbbante ay nuyoo ci sëñ Ablaye Diop Bichri Cheikh Amadou Muntaxa liggéey loo ko liggéey bu am solo sëñ Ablaye xar kanam bi nu wane war wane nañ xar kanamu jaamukatu yàlla. waaw bu wéer a wéer borom xam-xam. bu nëbb woon na te làqu. waaw yépp la boole suñ ko tuddee. sëñ Baara jenn dong doy na waxtaan. waaw doy na sëkk. sëñ Baara rek doy na waxtaan ci ci ci émission boo xam ne sëñ Touba génn ci làmmiñam ni murit saadix bi. sëñ Baara. waaw li ñëpp yi wër. Mhm. xam nga ñeent la sëñ Touba tënk ni mooy murit saadix. Mhm. dafa wax ni. sifaatu saadixil muriti bi ixtisaar. Mhm. arbaatun. nazamtuha xawfa ixtiraar. asidqu fi mahabbati cheikhi abad su mamtisaalu amrihi ay su warat mm-hmm. wa tarku li'tiraadi mutlaqan walaw mm-hmm. bi baatinin alli fii maa xad rawaw mm-hmm. wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hazihi sifaat min al muridina fa yudriku siqaat fanzur fi lataifi sahraani tajidhu kal yaquuti wal marjaani sëñ Tuubaa loolu la bind ñeent la wax mooy meloo murid saadix woy naa ko man xaadimu rasul ngir bañ ngeen waru moo tax ma woy ko ba ca njëkk dëggu ci sopp sa sëriñ ba ko ñaareel fur ndigalu sëriñ bi rotee nga jëfe ko ba ko ñetteel bàyyi diingat sa sëriñ donte ci xel la ba ko ñeenteel bàyyi tànn sa sëriñ di la tànnal mu ne ñeent yi ku ko wàccul dinga nga dab gaa yee yàlla gën sëñ Tuubaa bu wooyee loolu wëlbati ko wax ni sëñ baara jenn murit saadix bi kon sëriñ bi mooy càmbar na ko ba taawu maam Cheikh saa jenn boobu doy ko ci lépp di murit saadix sëriñ Xaamidun sëriñ bi dafa am bis muy am jataay di warga dafa mel ni am na ko dugg xel li jox maam Cheikh Ibra Fall waaw maam Cheikh Rafa lañ ci jataay bi maam Cheikh Issa jenn ngi ci sëñ Baara jenn ngi ci biir jataay bi ci biir jataay bi sëñ Baara jenn ngi nii mu xel li jox maam Cheikh Ibra Fall mhm. maam Cheikh Rafa naan kaasam ti jël kaas bi def ko ci poosam mhm. mu xel li jox maam Cheikh Issa jenn mu naan moom tam kaasam jël kaasu bi def ko ci poosam mhm. sëñ bi ni Cheikh Issa kaas yi ngeen téye nag mhm. mu ni ko xanaa Cheikh Ibrahima mii ko téye rek mu ni delloo leen mu ko de mayuma leen kaas ñu daal di jël kaas yi delloo ko sëñ bi xel li jox sëñ baara jenn mii mhm. ni ko am nga bi nga xam ni maam Cheikh Rafal nekk na ayu bis naan cey Cheikh ndax nañu rek ba jur doomi murid saadix ndeysaan moom fu mu jaar ba am doomi murid saadix sëñ Bamba ko wax maa ko dégg ci loolu la ñu nuyoo ki yëglu waaw salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ Amirou Diop waaw cheikh bi. maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi la koy delloo waay. nag xew yéen a ngi jàmm bu baax. noo ngi sant Cheikhul Khadim bu wér. maa ngi ziar Abdoulaye Diop Bichri bu wér a wér. jërëjëf wallaay ndeysaan. Cheikh Kébé la. sëñ Cheikh noonu lay ziar sëñ Cheikh Kébé bu Belloxo. Cheikh Kébé Belloxo. maa ngi ziar naka waa Belloxo. ndeysaan ñoom fa. sama soppe yooy nga xam ni dëkk ba de ba fa ñëwee mosuma gis loolu ci dëkk ma. ah wax nga wax nga nit ñi dañ doon yëg ci garab yeeg ci miir yi ndax di ma séentu. ndeysaan ndeysaan dëgg la de dëgg la de. maa ngi ziar bu baax waa Belloxo. ndeysaan maa ngi doon ziar bu baax a baax. di la nuyu di la ñaanal bu baax. waaw maa ngi doon maa ngi doon di ñaanal bu baax man mi de. waaw sëñ Hamidou ku bëgg sëñ Momar Absalo mu ngi nii. ndeysaan sëñ Hamidou Diop moom de sopp ko loolu mooy de. walaay walaay ñëpp a ko sopp. <laughs> la raw waaye sëñ Cheikh xam nga lu ma bëgg damaa bëgg bu ñu demee ci conférence bi wax naa ko sëñ Cheikh seen raay mu jox ma valise bi ma sécurité bi <laughs> waaye tubaarkàlla <laughs> Baye Cheikh moom de sama soppe la woon trop. wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay. yéen dina baax de wallaay bu ngeen commencé man du ma am benn temps bu may far. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ba keroog ba keroog ba keroog mat waaye fi ngeen dugg noonu de am na solo lool. jërëjëf ndeysaan jërëjëf. maa ngi sax jenn moomu de. waaw. Mm. liggéey na de. dëgg la liggéey na lool liggéey bu rëy boo xam ne bii ñëpp teg na seen bët. wallaay ndeysaan. Mm-hmm. ndax koo ko jël sëñ Baara Jëli moom xam nga ne ku sëñ Tuubaa dem ba ne gërëm naa ko. Ah. wallaay ndeysaan. ah loolu de tawfeex la de. da sëñ Tuubaa dañu gërëm naa la dañu ko gërëm naa la. sëñ Baara Jenn sëñ Tuubaa dañu ko gërëm naa la. Mhm. yàlla gërëm na la. yenant bi gërëm na la. Mhm. te soo demee ci sa baay Seex Isaa dina la gërëm te ci góoru yàlla yi la gërëmam comme sunu ngërëm. <laughs> dégg nga wax dañu ko gërëm naa la. Ah, yàlla gërëm na la yenant bi gërëm na la. Mhm. te soo demee ci sa baay Seex Isaa jox naa la ndigalu dellu fa dina la gërëm. te moom kat ci góoru yàlla yi la ngërëmam comme sunu ngërëm la ilaha illallah waaw yéen yéen yéen moom wallaay ndeysaan mu mu meen si ngërëm ñun ndax ñu man a jàll ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf en tout cas daal ñëpp bëgg ñu ngi leen ziar baax na wallaay jërëjëf wallaay wallaay li mu wax dëgg la euh, sëñ Ablaye soo génnee soo génnee da ngay am problème ci nit ñi cofeel gi te sëñ Tuubaa rekk tax sëñ Ali lay mm-hmm. tey laa mës a gis mu dugg ci tele di waate ndeysaan entrepreneur bu mag la nekk fële ci Tëngéej mhm. di suñu kilifa di suñu waajur mhm. bëgg lool Cheikh Issa Diagne nee na ma oh. maa ngi jéem ci ligne bi moo tax sañ daam sañ daam dimbali rek ba mu jegg ndax kooku ak ak ak duggam ci télé sax waaye nag ak sañ Mbay Touré waaw sañ Mbay Touré maa ngi gis nii message am <laughs> tey moom waa njënd gépp yëngu ndax ndax sëñ sëñ Ali ku bëgg Cheikh maam Cheikh Issa mm. ñu ngi koy ziare baax lay di nuyu waa Tëngéej maam Cheikh Issa soxna sa mhm. jagle yi mu am la kenn am ay jagle moom boroomi jagle la. waaw moom léppam jagle. ne ko salaamaaleykum. waaw salaam wa hmm. ku baax. waaw. sëñ Abdoulaye waaw ñu ngi ziar. noonu la waaw ñu ngi delloo ziar bu baax jërëjëf. ndongo la ñaan Njaga Mbay sëñ Baara Gueye. sëñ Njaga Mbay. waaw taalibe sëñ Baara sëñ Baara Gueye. Hmm. waaw mu sëñ Abdou wallaay. Hmm? waaw dëgg la maa lay ziar bu wér wér. ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax Mbaye. di la bëgg nag. jërëjëf mbay waaw ndax seen jotaay dama koy topp saa su nekk. dëgg la Mbaye. maa ngi lay bëggee ak yow ak suñu Abdoulaye Diop di. jërëjëf bi noo ngi lay ziare. nanu ko ziare maa ngi lay ziare bu wér wér. jërëjëf Mbaye bëgg nañ. alhamdulilah. jaajëf Mbaye. kontaan naa ci yéen trop. noo gën a bëgg tey dëgg naa maa ngi leen di ñaanal ci kàttan Serigne Touba. Hmm. Hmm. sa Isa. yàlla su moom dooleel di ñëw. amiin amiin Mbaye amiin. bakk sa amul woon ko xam sa amiin amiin Mbaye. maa ngi leen di ziar bu wér a wér. jërëjëf Mbaye waaw ndax ñu ngi sant suñu waajur bu baax di ko ñaanal. jërëjëf Mbaye suñu borom jokkoo xéwal yëpp ay leer. jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf. ñu ngi nuyu bu baax a baax eh, Cheikh Mbeng eh, di suñu goro foofee ca Touba ak waa kër ga sëñ bu maa ngi koy nuyu waaye nag peppale laay jiital ndey Xadi Euh, sëñ saadi bu Touré grand conférencier borom xam-xam bu mag. maa ngi jot bataaxalam. borom baax la sëñ Ablaye. Euh, cay cay daam boo ko ne woon sarax rek dugal ko ci biir mu wax ñaari bayit yi maam Cheikh Issa Diène ak ak mën a waxtaan. daam boo defoon loolu sëñ Abdou Diouf dana kéemaane loolu sëñ maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare. bu koy ziyaar bu baax euh, soxna Bintu Jaxate ñu ngi koy nuyu groupe kenn du sëriñ bi. Hmm. di ziyaare Mame soxna Astou Gawane Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di nuyu soxna Anta Ndiaye fële ca Italie soxna Ndiaye bi hmm. ah, soxna Ñaaña Diop ca Paris Hmm. soxna Aji Diop ma ngi ca Floride ñu ngi koy nuyu baax moog yaayam soxna Faama hmm. eh, ak sëñ Xaadim di ñu waajal seen bis bu am solo boobu ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare hmm. eh, sëñ Ablaye yaa ngi doon dugg léegi di ubbi xam naa dañuy jëlaat ñaari téléspectateur sëñ Daam eh, su ko defee su ma mënee jot sëñ Ali ak ak sëñ bu Touré dana am solo lool ndax xam naa ne mbégtee tax mu woote waaye sëñ Ablaye sëñ Touba ay gaynde rek la jabal la la dajale première réalisation Cheikhul Khadim mooy jumaay Touba mooy jumaay Njaaréem te ci loxoon maam Cheikh Cheikh Issa Dieng wér na salaamaaleykum alhamdulillahi alladi yujazi man axsanu bil xayri wal mafaasi mhm. ah dafa mel ni génnaat na Euh, première réalisation bi sëñ Ablaye. waaw waaw muy jumaay njaarim xam nga jumaay njaarim euh, maam Cheikh Sa Dieng li ma lay wax léegi ci ay jagleem dadaa wax ni. Mhm. ñett ngi ñeewuma ci ku yàlla bind. xam alquran xam tabax ak xam sëñ Touba xam alquran ak xam tabax ak xam dara ci sëñ Touba ni ñeewu ci ku yàlla bind ndax xam-xam bu ko ci yàlla yenkewal boo xoolee jumaay njaareem modèle bi mu ko tabaxee ba tey dafa mel ni deux mille vingt et un lañ ko defar te style bi wuutewut ak dara ba ca turki ci ñu dem turki mhm. maam Cheikh Issa am ci jagle boo xam ni bi ko sëriñ bi sant liggéey bi mhm. mag ñépp a ngi ci sàppe yi mhm. sëñ bi julli ba sërmal ni ana Cheikh Issa mu ni maa mu ni ko yàlla nee na Cheikh Issa moom liggéey bi yenant bi nee na Cheikh Issa man Ahmadu nee naa Cheikh Issa kon Cheikh Issa sab liggéeya ngo nga xam ne tey bu ñu la wanee le 11 mars 1918 sëñ Touba bi mu jëlee truelle bi. am na ko dugg. waaw <laughs> ah, asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Ablaye. waa ku baax. maa ngi si soppe Modou Kan Touba. sëñ Modou. Kan Touba. sëñ Modou Kan Touba jëf Kan. waaw jërëjëf Kan. bàyyi ci jàmm ngi sant sëñ Touba rek kan. ñu ngi rafet lu baax émission bi. jërëjëf kan. léegi rek di ñaan yàlla borom mu xam-xam bi ak euh, xéwal yi. amin amin kan amin kan. ñu ngi am jóg baax ci xam bu rafet moom tamit ñu koy seex bu baax. jërëjëf seex bi. di rafet lu baax euh, waxtaan bi wax dëgg yàlla am na solo loolu macha allah. walaay ndeysaan. yéen a ngi gën a gën daal ci sëriñ bi. ñu ngi xamante dañoo nekk ay ndaw. ndeysaan. sëriñ daan tamit lool wallaay wallaay ndeysaan waaye daal en sant baax a baax di leen gërëm di leen suñu borom defal ak tawfeex rek baax suñu tubaab jërëjëf yàgg baax a baax jërëjëf jërëjëf ñu bokk ko jërëjëf sant nañ ko baax gërëm ko euh, mu nekk dernier téléspectateur bi kon su ko defee sëñ daam boo mënee jot sëñ Sadibou euh, mu tabbi ak sëñ Aliou dana baax lool incha allah su ko defee ñu tëj ligne bi ndax Euh, dama bëgg tey si Ablaye mhm. nga ñëwul ma ci Cheikh Issa li ñu dese ci ay simili waaw ndax waxtaanu ko da doon junj rek ci jumaay njaari dama léegi yaa ngi ci jumaay njaari mhm. nga xam ne mooy jumaa ji sëñ bi njëkk a taxawal mhm. euh, jumaa jooju maam Cheikh Issa la wax ni anamu mu ni maa ngi mu ne ko sunu borom nee na sa liggéey yanant bi nee na sa liggéey man Ahmadou nee naa sa liggéey liggéey baa ngoog le 11 mars 1918 te lu jiitu sax ñuy jot ca terrain boobi ak sëñ Maysa Njaay ak fa ñu jaar maam Cheikh Issa alalam moo ca dem lépp ci ndigalu sëriñ bi mu fàggu terrain ba fay lépp ba ñu jot ci bi sëñ bi teg tam liggéey xeer woowu nga xam foto yi génnoon na bu yàggul defe naa daaw ci lay toll turiyel booba sëñ Maxtaar Bintaloo nga cay gis seexul xaddiim ñu ñaan mu ni maam Cheikh Issa ana mu ni maa mu ni ko sab liggéeya ngo maam Cheikh Issa liggéey ko ci temps record temps record mooy bu ñu la waxee 1918 la ñu teg xeer yi te 24 àgg na kon da ngay xam ne temps record la ci boobu jamono ni crise yi amee mhm. jumaa ji mel nee mu mel nga xam ci juróom benn at ngay nattale jumaa ji àgg moo tax keroog bi mu àggee mag ñëpp dañoo daanu jël jooy xaacu ngir mbégte ku ne tàgg na Cheikh Issa ca la ko sëñ Momar sëñ Momar Kayre woykat bu mag bi mhm. ni ko laa fal la fooka wala maa fii ka yow mi amee buur yàlla yàll na la xaar xaaraale loo fi ame bu la cat jàpp bu la gémmiñ jàpp lépp loo yor yow Cheikh Issa bu ci wàll am bu ci cat am wàll buur yàlla me la jiital yàll na la aar te aaraale la loo fi ame ni ko yaa man mukkuusuka fii naa saw fa yan faxu naa yow yaa yow jiite fii yow mii la eh, la bàmba nome waaw yaa man mu ko sukka fii naa saw fa yan fa onaa yow mi nga xam ni foo sax foo dëkk ku fa ñëw day jariñ njariñ képp fa am yow Cheikh Issa ni ko yow mii yaa yayoo jiite ñépp kon yow la sëriñ Tuubaa nomee ci la nomee tax ni ko wa man ta am ma la yaalam anna malja jiital na Issa ba moo tax ab dëkkam daname hmm. mu ni képp ku mébétoon lii nga am yow Cheikh Issa di ko jéem a toppandoo walaay dana xam ni du du cëram ndax yow sëriñ Tuubaa la tànn jiital la ci ñépp nga jiite ko moo tax ba dëkkam bi nii mu mel tey jube nii rafete nii jumaa ji taarale ko nii mu mel nii mu mel ndax yow rek yaa ni ko yaa man yamiilu lahu sukkaanu buqatina yaa leen di àtte nda yow baax rek lan la xame nga yow Seex Isaa dey sunu dëkkuwaay yi sunu kër yi ñi ko dëkkee ñépp ku ci mës a sunu pàkk bu laab bi ku ci mës a jeng wut si la mm-hmm. bi mu ñëwee de yow àtte nga ko teg ko ci aw yoon dimbali ko ndax yow daal lu baax rek lañ xam ci yow maam Cheikh Issa mhm. is lastatan hërahum ndax yow mësoo leen a gëdd mhm. yow Cheikh doo gëdd kenn salaamaaleykum waaleykum salaam alaaji sëriñ Saalibu moom sëñ Touba maa ngi lay ziare ñu ngi lay bëggee ngi la koy delloo Cheikh Issa jenn maam Cheikh Issa maa maa ngi leen di ñu ngi lu koy delloo Touré. di leen màggal bu baax di leen bég. jërëjëf Touré jërëjëf Touré. sëñ Abdoulaye yàlla yàlla guddal sa fan te fay wér. ñu bokk ko amiin. xanaa xamoo ne ayuma rajulun ataahu lahu ilman fakatamahu altimahu lahu fi jaami naar. Hmm. dëgg la waaye nag li ma jaaxal mooy lastu minal ulama man de ana lastu minal ulama yi. ndeysaan. ana ban jëmm la yàlla jox xam-xam mu nëbbu ko. Mhm. bu yomal xeemee danañ ko ngalaat ci ngalaat bi sax. Mhm. yow nag sa xam-xam da nga cee tabe. ndeysaan. da nga cee laaj bi. wallaay ndeysaan. yaa ngi jàngal lu bari. wallaay ndeysaan. non conférence yi sax yaa ngi ñuy jàngal. ndeysaan ndeysaan. yal na yàlla guddal sa fan. amiin. may lu wér dooli la jàmm. amiin amiin Touré. sëriñ Amidou Diop. Alaaji sëriñ Sadibou. yal na yàlla defar seen mbir yëpp. amiin Touré amiin. waaye xam nga Serigne Bamba Khadim Rasoul. waaw. Mm. wali jaalta maa katabtu akbara. Mm-hmm. Mm. ridan ladayka xat yasurul kubara. wallaay mm. ndeysaan. salli bi taslimin alal mujammili. Mm-hmm. sayidina mukammilil mukammili. Mm-hmm. sayidina Muhammad wa bikun. qutli maali basarin lam yakuni. dëgg la. sëñ Bamba la yàlla jox loolu kenn amu ko. kenn amu ko. moom doo ko xam. wallaay lay yaxaade laaw maa yëkku nii. Mhm. wala yëkkunu li si waaye bi mhm. ku nii. waaw. ca mawaahiwul ilaahiya bu baax ku màgg kooku ngeen di waxtaanee di Cheikh Issa. problème mhm. bokk na ci li yàlla jox sëñ Tuubaa. kon sëñ Tuubaa bi moom kenn amu ko. man daal sama xol sedd na. jërëjëf Touré. am naa mbégte. wallaay Touré. sëñ Amidou yow rek amoo benn kiñaan ndeysaan yow nit ku tabe nga ndeysaan ndeysaan yow kuy xàllal nit ñi aw yoon nga ndeysaan ndeysaan rawatina yoonu jëm ci teraanga ndeysaan ndeysaan yal na la yàlla jàppale amin Touré amin amin lay job bisri wallaay ndeysaan yàlla dana la fay jërëjëf Touré ñu bokk leen la fay amin amin yi danañ la fay amin yal na la yàlla yàggal ci wéral la. Ah, amiin sa tawfeex. amiin amiin amiin liggéey liggéey bu rëy. wallaay ndeysaan ndax yow waxtaankat yi fi mu ne nii. Mhm. yaa ngi leen di dolli. ci sëriñ bi. Mhm. ndax léeg-léeg ñoom boo xam ne duñ ko xam. waaye bu la dégloo ci sa sa tabee da nga koy leeral ba mu leer. dëgg la da ngaa baax Touré dëgg la yow yal na yàlla leeral si lépp. amiin yow gindi nga gindi nga ndaw ñëpp ci diggante caaro yeeg jàmm gën. ak Pikine ak Géejawaay waaw yàlla yàlla nga ñu gunge ba ca kanam a kanam a kanam fii ak téeméeri at ci barke sëñ Fallou amiin Diop amiin ku baax nga da am xam-xam te ñàkk ki ñaan wallaay wallaay wallaay wallaay maa ngi sama mbégte rek moo tax ma wootee waaye li yow mooy Cheikh Issa ndeysaan ndeysaan maa ngi maa ngi gën a jërëjëf Touré jërëjëf jërëjëf sëñ bu Touré ñu gërëm ko baax a baax muy borom xam-xam di conférencier bu mag bari ñoo xam ne tey ñi ngi góor góorlu ci yoon wi mm-hmm. ci di waxtaane njàngalem sëriñ bi mm-hmm. ci bari Serigne Saadi bi moo leen ci dugal. ba ci doomam sëñ Touba Touré. jàmbaar la sëñ jàmbaar la jàmbaar la lool maa ngi koy nuyu di ko ziyaare. Mm-hmm. moom it mu nuyu mu nuru waajuram bi lool. si Cheikh Mbeng sëñ Habib bokk ci pepp la rek laa tudd maa ngi koy nuyu baax ak koddu ndeysaan ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. sëñ Ablaye. balaa sëñ Allé dugg. yaa ngi woon ci. maa ngi woon ci way wu rafet. way wu rafet sëñ Momar Kayre Momar Kayre mhm. bu mag bi defal Cheikh Issa Dieng ngir ndokkeel ko bi mu noppee ci jumaay njaareem. Mhm. mu ni ko li tax sëñ Touba bàyyi la ak ñooñu njaareem. Mhm. mooy is lasta tanhiruhum yow da doo leen gëdd. Cheikh Issa ku rafetoon ay teggin la. mu ni ko is lasta tan is lasta tanhiruhum leen gëdd yow doo gëdd kenn moo tax sëñ Touba bala ak ñoom. wala tuxawifuhum doo leen tiital di leen ragalloo mhm. léeg-léeg ñu soxla kilifa muy tiitalaate mhm. kenn du ko ñemeñ waaye loolu dalul Seex Isaa mhm. mu ni ko yow de doo leen tiital mu ni ko doo leen dëral kaso yow say wax melul ni xeme doo jàpp nit naa ko kaso laa la yóbbu nangam nangam di la di leen tëkku say wax we xàtt mel ni xeme déedéet waaw daal di koy wax ni ko lam tux fi anum xuyóoran baltu sayyiruha mu ne ko yow de mosoo nekk di leen nëbbu ay yiiw ak i tuyaaba bañ taalibe xam ko ni buñ fa jaaree dañuy defar doon ko nëbb da nga leen koy wan te nga leen koy yombalal ba nu man cee jot doo leen jamew xay sa yiiw wi daal nga leen di jame yow doo jame kenn ay doo indi ay di ko takk ci kenn boo leen di jam waaw nga leen di jëmee boo leen di jëmee doo jëmee ci ñoom aw ay waaye lu baax ngay jëmee ci ñoom mm-hmm. ci teraanga jooju mu ne ko xat xusta man wa ilman summa yow day Seex Isaa làq nga xéewal koom lim ci amoon kenn amul waaye lépp la daan jox sañ Tuubaa mm-hmm. wa ilman ak xam-xam te bu ñee diw am na xam-xam na ko boroom xam-xam yi wax sëñ Xaamidu mm-hmm. sëñ Momar Kayre moo ne ko làq nga koom waaye làq nga xam-xam wa fatal ak xam yàlla Cheikh Issa ko xamoon yàlla mas naa dikkal sëñ Touba di ko laaj turu yàlla wi mu nëbb sëñ Touba daal di mel ni ku ko dummoo yu ni ko Cheikh Issa wan tur dellu ci liggéey bi nga naan ma tur mu dem ba jëmmi jamono mu del seeti laaj ko sëñ Touba sëñ bi ni ko waxuma la woon nga may bañ a laaj tur woowu mu ne ko Mbàkke damaa xam ne yow rek a ko xam te solo neexee ma xam ko sëñ bi ni ko kon tëjal bunt bi te randu si ma xamal la mu tëj bunt bi tëj tëj tëj ba jege sëñ Tuubaa sëñ bi ni ko jox ma sa nopp mu jox ko sa nopp sëñ bi wax ko tur wi ni ko man yow yàlla bu ko wax kenn ba barsàq man yow yàlla waaw Cheikh Issa na su fekkoon sëñ bi tegu ci boobu gërëm naa sëñ Baara Jenn kon ma xamal ko tur wi mhm. waaye li sëñ Tuubaa wax moo tax duma ko wax kenn te tur woowu dara jaral lu ma tudd ko lu dul asamaan suuf doon laale rek mhm. waaw gisuma lu ko jaral tudd tur woowu ngir rëyaay ga ak dayo ba te sëñ Touba xamaloon na ko Cheikh Issa kon ku xamoon ay secret la ci sëñ Touba waaye boo demee ci càmbaar ju mag gi sëñ Ibrahima Diop al-Mashari yi mhm. radiyallahu anhu nga xam danoo defal mhm. portrait maam Cheikh Issa Diène mooy kan mhm. dani xaasal mafaqira Issa Diène zul karami wa faaza bil qurbi wa ridwaani bil xidami dani làq na ñu ni nga ko làq mu ne Issa Diène maam Cheikh Issa Diène lu mu làq mu ne al lépp lu ñuy tiitaroo naan am naa ngërëmu sëñ bi tabax naa ay jumaa dégg nga def naa nangam nangam bind naa téere tafsir naa lépp lu ñuy tiitaroo rek ci nitu yàlla nee na yooyu yëpp maam Cheikh Issa da ne ko làqu mu ni Issa Diène nag zol karam yi mooy borom tedd nga ga li ñëpp doon wut daal la gën a tedd la ko yàlla jox mhm. wa faasa kur bi am na ak jigéen nag ci yàlla am na ak jigéen ci yenant bi am na jigéen ci sëñ Touba. daam ana foto maam Cheikh Issa Diène bi ndax sëñ Hamidou jege ci yàlla mhm. mënta weesu képp ku tudd ci lislaam tudd Seex Isaa te liggéeyam ci islaam moo ko may jigéen yàlla mënta weesu naafile kat la bu daan naafile guddi gépp lu jiitu muy ñëw ci sëñ Tuubaa ba ci naafile yu bari yi mu daan def ci la tëddu gis gu yanant bi alayhi salaatu wasalaam bi nàmpal ko ci gént ni ko li des ci sama soow jox naa ko Cheikh Ahmadou Bamba ci la laxasi fekk sëñ Tuubaa fële ca mbal ba mu ñëwee sëñ bi jëflanteek moom jëflante bu gaaw ba mu ñëwee rek sëriñ bi jox ko gopp ni ko demal nga bayal ma dëpp néeg bële bi mu bàyyee dëpp néeg bi laata mu koy jeexal sëriñ bi yónni sëñ Omar Anta Nguuna Gueye ci seex yu mag yi la woon moo jëli woon sëñ Basiiru Mbàkke jox ko sëñ Tuubaa bi sëñ bi jógee ci géej gi bay laaj sëñ Basiiru sëñ bi yebal ko ni ko demal waxal ma gan gee fi ñëw na taxaw bu mu defati dara yàlla wàcce na ko gërëm ko yenantu bi wàcce na ko gërëm ko man Ahmadu wàcce naa ko gërëm ndax diguma ko fay ko lépp li ma yor dama ko war a fay fay moroomam te bu wéyaatee pas-pas bi mu indaale sama kër bu jeexalee dëpp néeg bi bay lépp ku waratee fayu sama kër danga nga dem ci moom ndax lépp lay jël kon na taxaw defe naa ko pas-pas bu rëy la ñëwee ci Sëñ Tuuba mm-hmm. kon làq na ak jigéen yàlla làq na ak jigéen yenant bi alayhi salaatu wasalaam waaye làq na jigéen sëriñ Tuuba sëñ bi gërëme na ko nu nekk mm-hmm. ndax Sëñ Tuuba moo ni dem naa ba sama kër lu ma dëgmal mu ni ma Cheikh Issa moom fi indi gërëm naa dem naa ba lu ma bëgg laal rek mu ni gërëmal ma Cheikh moo fi indi mbooleem yii ci kër gi ci bari ci àddiya Cheikh Issa ko fi daan indi dem na ba sëñ Tuubaa nii dem na ba peru sàkke di yépp di seereel Cheikh Issa hëddiyaam ci kër gi ni ko mbàkkee goreel ko ci sawaraak ku ko topp te loolu lépp mën a joxe hëddiyaa ko may seex Issa kon sëñ Ibrahima Diop almasori ni xaasal ma Issa jenn zul karami wa faaza warit waa ni waaye nag bil xidami ci liggéeyal sëñ Tuubaa la ko amee nag mm-hmm. am na ngërëmu yàlla de bu wér waaye mu ngi ko jaare nag ci liggéeyal sañ Tuubaa mm-hmm. mu ni nag xibbul xadimi wa misbaaxu tariqatihi bi istanaarat liman yamshi bila dulami mu ni nag kooku di Seex Isaa xibbul xadim moo nekkoon soppeeb sëriñ Tuubaa bi kon moom amoon na tawfiix sëñ Tuubaa da koo soppoon fu mu ko gisee muun xibbul xadimi wa misbaaxu tariqatihi Cheikh Issa moo nekkoon làmp yoonam wi ab làmp la woon ci yoonu lislaam waaye làmp la woon ci kër sëñ Touba ku mës a mës bëgg ko la leeral bu ñëwee ci Cheikh am yoon wu gaaw te leer nañ kon misbaahu tariqatihi làmp la woon ci yoonu sëñ Touba wi bii ci darajey Cheikh Issa daal istanaarat daana leerlu daana mën a leer bu baax li man ñeel koo xam ne yam si dafay dox bilaa zulami ba dootul am benn lëndëm mhm. kon bépp taalibe bu bëgg a dox ci ngërëmu sëñ Tuubaa doo am lu lëndëm mhm. nee maam Cheikh Issa làmp la woon bu la daan leeral mu ni fattan jëmm la woon joo xam ni adibun ku bari woon teggin la kon li ma waxoon dikkaat na Cheikh Issa ku bari woon ay teggin la diggam ak sëñ Tuubaa adibun waaw mhm. waaye mu ni aribun ku rëyoon gis-gis la xanaa gisoo rëy gis-gis a tax mu defar jumaay njaaree rëy gis-gis moo tax ci 1918 mu mën a sumb loolu liggéey ko ba mel nii ma mel 2021 a jaaxal ñëpp kon ku rëyoon gis-gis la aribun mu ni waaye mooxizun ku ñu yee la ñelawul de ku ñu yee la ku xam li xew la waaye yaqizun ku yeewu la woon Seex Isaa xel mi dafa rëy mu xam ni ñuy jariñoo ci sëñ Tuubaa mu ni waaye Seex Isaa darrun ku baax la woon dafa baax mbaax képp la làmboowu mu ni kar yi mun maam Cheikh Issa Diène ko teddangoo mhm. jëmm ji di Cheikh Issa Diène mhm. mu ni jawaadun ku tabe la woon te bu ñu waxalee ni tabe na mooy kooka daal am na ngërëmu yàlla ku tabe la woon mhm. mu ni nag tab goo xam ni mux ji lu diyami gàcceloon na taw waame taw waame mooy taw bi sotti di ñoral tool yi li muy mën a joxe joxe joxe Cheikh Issa ko dàqoon a joxe moom taw waame mu ne rabbul jifaani yaa ngi may laaj kan mooy Cheikh Issa mu ni moo nekkoon borom mbana ya rabbul jifaani moo nekkoon boroom baagaan ya nu ñu koy waxeeti sax bagaan kay bagaan yi ñuy togg di di yekk mhm. mbana ya Cheikh Issa ko daan dajale ca këram ya boo demee ngenne dañuy sëf mhm. ay gëléem di teg di di looj ay baati gëléem di togg ay ndab ay mbana di ko séddale kon kooku moo nekkoon rabbul jifaani rabbul jifaani lëtii daban xadim talaat bil urzi wal laxmi wal ahbazi wad dasami hmm. nee na Cheikh Issa moo nekkoon borom mbana yi nga xam ni hmm. mbana ya daan fees dell dell dell ba rembet hmm. ak lan bil urzi ak ceeb wal laxmi ak ndawal boo demee kër Cheikh Issa mbana ya day fees ak ceeb jamono bi ceeb jafee lekk wal ak ndawal wal axbaasi ak mburu ay mburu xubsu jàmm bi mooy axbaas war dasami ak diw nga xam soos bi jamono soos di jafe Cheikh Issa këram soos la togg dégg nga wax ci mhm. kon dana am soos di am ay tufe mhm. di ami mbana yu muy togg di joxe mu ni wa bi mataimi mhm. anha kalla muftaxirun bi zabxi li dayfi min urbin wa min adami ak woy sëñ Ibrahima Diop Masar neen mu ñu ba temps mi bu dee bërëb ya ñuy lekke ci këram nag muy ay restaurant ya fa am restauration wala boog muy cuisine ya waañ ya fa mu daan def ñam ya boo duggee kër Cheikh Issa mu ni anxaa wëlif yooyu bërëb kal la muftaxil ku doon tiitaru bu fa ñëwee day lot léeg-léeg nga naan maa mën a bernde rey naa ñaari nag ci màggal nee bul dem kër Cheikh Issa boo tëralee ñaari nag boo demee fekk ma mu rey junni nag sa kuy tiitaru ci mën a joxe ñam nga dugg ci wanag ya ca kër Seex Isaa wala nga dugg ca waañ ya wala nga dugg nee na ca bërëb yi ñuy xewloo da nga ko fekk lu tax nee na nga lottu xam ni mënoo lii Seex Isaa mënoon mu ni nag moom da ko daan def bi zabxi li dayfi di looj looj mooy rendi ay baat baati gëléem ak ay nag ak i xar li tay fi di ko jox gan gi ñëw moo xam min urbin wa min ajami ku jóge ci arab yi wala mudul arab mm-hmm. te maa ngi lay wax benn mbir mm-hmm. saa su ma saa looj baatu gëléem ñu tëll ko rendi ko fees Cheikh Issa day wax nañ génne fàllare wa bu dee nag nañ génne fàllare wa bu dee xar nañ génne fàllare wa mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall laa koy jox baabul muridiin noonu la fonke woon Cheikh Ibrahima def saa ndaw ñëwee rek Cheikh Issa ni xanaa sëñ am Cheikh Rafal ni ndaw Cheikh Issa ñëwaat mu ni waaw Fall mu ni ciy fàllare nag yee xar yi kër Cheikh Ibrahima la ko daan joxe du ko xewloo kër Cheikh Ibrahima gërëm ko mu gërëm maam Cheikh Rafal bis mu koy def ba indi fa xéewal yooyu maam Cheikh Rafaal nañ ma indil tey sama bindukaay bi doom te indil ma kayit damaa bëgg a gërëm Cheikh Issa ngërëm loo xam ne dama koy seereel sama borom ni jëf na ci man ci sama bind dem indi plumier bi indi encrier bi teg maam Cheikh Rafaal génne plume bi bi soos ci teg kayit yi bëgg bind kenn ci soxnaam yi daal di raam ko faal njaga bala ngay gërëm Cheikh Issa nga may ma ma seere ci moom mhm. maam Cheikh Rafaal ni ko bisimilah mu ne ko nun ñii di liggéey sa kër di fi jaamoo yàlla day mën nañoo waat ni bu fekkee kër sëñ Touba daa am course bu ñuy fëx di rawante mhm. Cheikh Issa kenn du ko raw ngir jëfam ci yow maam Cheikh Ibra ah, bu ngeen demee neen ko jaratu la bind loolu si wax maa ko wax maa ko garanti man Cheikh Ibra Fall kenn mën ta raw Cheikh Issa mhm. kon wa bi mataimi anxaakalla muftaxirun mhm. bi zabxi li dayfi min urbin wa min ajami kuy Cheikh Issa mu ni amma hëddaayaahu laa tuxsa ala ahadin bi nutqi bil fammi aw bil xatti bil qalami nee maam Cheikh hëddee yim daan jox sëñ Tuuba léegi gëli sëñ Ibrahima Diop Masar wax nee na hëddee ji maam Cheikh Issa daan takk di ko yut sëñ Tuuba amaa hëddaa yaaw mu ne laa tuxsa ala ahadin kenn mënu koo lim ci kenn fii ne bu sëñ xaami jun toogoon ma toog junni murit ni ñun toog ku ne di bind di calculer def ci ay feuilles naan Cheikh Issa la sëñ Tuubaa nangam nangam dañuy wër ba sonn bàyyi te da tax ñu matal kon ama hëdda yaaw ndaal addiyeem daan jox sëñ Tuubaa mu ni laa tox saa dee fu ko takk ala ahadin ci kaw kenn mën ta fexe lim ba xam ñaata la tolloo moo xam nag bi nut xi bil fam mi lu ñuy wax ci làmmiñ aw bil xatti bil xalami wala lu ñuy bind ci xalima kenn mënta lim addiyee Cheikh Issa nu mu toll ki ngay woy ku mu doon mu ni wasiru cheikhin moo nekkoon kilifa gu sëñ Tuubaa teg ko defe comme wasiiram mu mel ni ministre ci moom def ko wasiiram mu mel ni njiit lu sëñ Tuubaa teg ni roy leen ci moom def ko wasiiram mu mel ni bras droit bu mu teg ni xool leen ci moom kon wasiiru cheykhin dafa nekkoon kilifa di njiit lu sëñ Tuubaa teg tànnal ko boppam wasiiru cheykhin waaye bi mu ko tànnee ala raxmil xasuudi saabu nu tànnee nit nag faawa yeneen nit mer moo tax mu ni kon wasiiru cheykhin ala raxmil xasuudi sëñ bi tànnoon na ko daal jiital ko ci kaw donte dafa am ñu iñaan ci loolu bañit dañuy dee ci seen kiñaan waaye sëñ Tuubaa ko jiitaloon moo tax mu ni waziru cheikh ala raxmil xasuudi fa kam ata dafa lim moom si nee na ana ñaata yoon la ko sëriñ Tuubaa jox moom Cheikh Issa loo xam ne lu nëbb la ak lu feeñ te féete kaw lépp luñ doon xalaat sëñ bi jox ko ci lu nëbb ak ci lu feeñ xanaa xamoon ne li sëñ Touba mujj mu Seex Isaa ko togg li sëñ Touba mujj mu dem aljana Seex Isaa ko togg ci loxoom sëñ bee ko lu mu ñëw mu jox ko lu mel ni sànqal ni ko nanga ko togg togg woo xam ne doo ci juum doo ci jam mu ne ko mbàkke ko bañ a jamut ci bu lay toggal nu muy def mu ne ko looy door da ngay wax bisimillahi rahmaani rahim looy teg wax ko ba keroog ñam wi di ak mu ne ko incha allah mbàkke mhm. sëñ Tuubaa ni ko na ko teelu nag te fas ci li nga bëgg ndax ñam wuy reese àjjana dañ koo war a teey ñam wuy reese àjjana dañ koo war a teey ne ko ndax xam nga nu ñuy xamee ñam wi reese ji aljana mu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne ko suñ ko tiimee day lox te <laughs> isaa ko ñu mujj a mhm. kon am naag sëñ Tuubaa jataay yu mu amut ak kenn àgg naag moom fu mu àggut ak kenn gërëme na ko nu nekk noo tax sëñ Ibrahima Diop yi ni kon ñaata yoon la ko sëñ Tuubaa jiital ku bëgg ak ku bañ moo xam ci lu feeñ ak ci lu nëbb sëñ Ali sëñ Ali lay ñëw na. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yow de xanaa borom ngeen rek mën a tax nga dugg ci ligne. <laughs> alhamdulilah rabbil alamin. ndeysaan. sëñ am. wallaay sëñ Ali. yal na leen borom ngeen na fay. amiin amiin lay. sëñ am lii ma permettre ma man ko wax tey. wallaay. Cheikh Issa laa koy seere. ndeysaan. Eh, sëñ am. suñu kóllëre man ak yow weesu na. wallaay ndeysaan. ndeysaan. dama lay wax nag may ñaan. Hmm. am nga seereel ma. waaw. boo xamante ne génn naa at. ndeysaan yàlla na yeex. yàlla na yeex comme ni nga ko waxee. waaw. képp ku ñaanal bala nga maa ñaanal neen ak a bëggoon jafe sax. ndeysaan. <laughs> lool loolu dong laa bëgg nit di ma ko seere. Ah, ndeysaan yow da bëgg Cheikh Issa. <laughs> waaw li ma bëgg daal mooy. waaw ku ma xam. waaw ku ma dégg. Mm-hmm. ne ak a bëggoon Cheikh Issa rek. ndeysaan loo ci tegul moom mooy sama ñaan bu ma fi génne. ndeysaan. sëñ am yàlla na leen Cheikh Issa fay. amiin amiin amiin. Euh, sëñ bi waaw wallaay euh, mënu wax mënu wax. ndeysaan. am moom xam na li ma mel ci moom Issa mënu ma cee wax. wallaay ndeysaan alalam lu mu am ci Cheikh la ñu. lu ma xam Cheikh Issa la. lu ma xam lu ma am Cheikh Issa la. dëgg la sama njaboot sama lépp ñoom ñëpp ñu may woo fu nekk ñoom ñëpp di toog jëm. la jàggiru waaye dénk naa leen sama bopp ci Cheikh Issa rek. ndeysaan ndeysaan. jërë ngeen jëf. jërëjëf bëri ku la jàggiru waay ñu ngi leen di sant euh, euh, euh, télé bii nag. waaw. yàlla nekk télé numéro mondial. fastan ko ci Cheikh Issa fépp ñu gisee télé jërëjëf jërëjëf jërëjëf lay. mbër ku la jàggiru. sëñ Ablaye ku ku mat a xam a ngi nii te baax. sëñ Aliou lay dafa taxaw tëngeej. waaw di taalibe yi taxaw taxawaay bu am solo. Hmm. xam ko bu yàgg. Hmm. lu mu am ci teraanga ci Cheikh Issa maam Cheikh Issa la jëm. benn numéro rek la takk xam nga lu may wax. waaw dafa maa amoon sax baat bu am solo xam naa moom dana ko fàtte. waaw mu ma bu kenn ku ci nekk Hmm. kala sañ Tuubaa boole tam ti tam tibbal ko. waaw su la gënalee lépp yoon wi dara du taxaw. waaw wax na dëgg. wax na dëgg sëñ Tuubaa moo orienté noonu. noonu la doxalee ku nekk fam la féetee noonu la doxalee. waaye nag euh, maa ngi bëgg nga ñaanal si Ablaye nii moom it. Hmm. ndax euh, lii lépp ab taxawaayam la. moom moo nekkoon rek dañ leen ndax xam naa ne bu duggul woon tey moom. danaa am jafe-jafe yi maa ngi koy nuyu di nuyu baax sañ Bay ture tout euh, commerçant. ko hmm. ñaanal yàlla xarit si samat la mu yi bu di nuyu baax sëñ Moussa Diop Zikrullah. Cheikh Souley Diagne ñu ngi koy nuyu moom. sëñ Souley Diagne ndeysaan sëñ Souley. waaw euh, moom taalib sëñ Abdou borom dër bi la waaye dafa baax. ak sañ Matar Sey la fraîche. sëñ Matar ah ko suñu xarit la kooku. ak sëñ Xaadim Taal original. sëñ Xaadim Taal original ak sëñ Abdou Lahad Sylla. sëñ Xaadim damaa gën a naan original sax ndeysaan. ak sëñ Cheikh Sylla ca Gambi. ndeysaan sëñ Cheikh Sylla taalib sëñ Daam Abdourahmane Lo bu bëgg sëñ Fallou ndeysaan plaque otoom sëñ Fallou la ci ñaan. dëgg la moom la ko tuddee. dëgg la dégg nga dafa jënd ji plaque bi. Mhm. sëñ Fallou la ci bind. ndeysaan ñaari doom yi ko yàlla wërsëgee la gum. Ah. yàlla ñuy am ñeneen. waaw eh, ñuy ay soxna ñëpp sëñ Fallou la ko tuddee. ndeysaan nee na su ma amoon téeméeri doom ñëpp sëñ Fallou la ko tuddee. te. kër gi mu am sëñ Fall la ko tudde ndeysaan waaw ku baax la sëñ Cheikh si la ca Gàmbi ndeysaan mais mu ngi fi fan yi Touba yàlla na ko yàlla jàppale moom mbokkam yëpp te yàggal fi yaayam ba mu àggale yéene ci moom ku xale bu baax la ku bëgg sëñ Fall amin sëñ Abdoulaye xam naa sëñ daama ngi naa ma cate na waaye tey yaa ngi doon ñëw ci mbindum Cheikh Ibrahima Diop almasar waaw ñëw nga ci mbindum sëñ euh, sëñ sëñ sëñ Momar sëñ Momar Kayre hmm. euh, ku weddi lii demal lagan isaa di mbër moo gan yaaram la wute yaaram la wute naag sa gën bambaa ko ñaag ci xarnu bi wallaay ndeysaan da nga ne sëriñ tubaa ko none waaw moo ko none Saint-Blaye nomination Cheikhul Khadim wallaay da du rëy la loolu du ay caaxaan de <laughs> wallaay moo ko nome sëñ tubaa ko nome wallaay moo ko nomel boppam defaral ko lam waxoon wal tus bi tam fii jamaatan tuxim waaw sëñ tubaa wëlbatiku teg turéel bi ne ne isaa mu ne ko mbàkke mu ne ko sëb liggéeya ngoo ko wallaay barke rasulullah Saint-Blaye tey bu ma ñëwoon rek wax la ci ak defaroom ak ni ko sëriñ bi defaree lu tënku la yàggul yàqul waaw moom daa yegg si booba sëriñ baa ngi ball rek nag waaw mel noo xam ne mbàkki ball ku ñëw mën a la bismillah ndax booba fees na del talam doon wut yëpp suñ borom jox na ko mu tee ko ci loxo ba yëkkati loo xam ne zimaamul war a asri la da lay keroog la borom ngeen nag lagan feeñ ñëw ci seexul xaddim muti bu jox ko ci loxom ba noppi nag ne ko liggéeyu jumaa jàngoog sëñ sëñ waaw ba pare li lay xamal euh, ni ko sëñ bi defal waxuma la seeqe saa waaye ñi mu gërëm rek kenn mën ta xam lañu doon boo xamoon tuuti sëñ Mor Touré lam ko yekkal rek sëñ Mor Touré rek làmp la mën naa xoolal làmp la côté Kajoor gépp mën leen a servir te Seex Isaa ko gërëm sëriñ Ngañ Tandine sërif boobu nga xam ni naaru darman ko boobu mhm. ngërëmu Seex Isaa la moom lañu tudde sëñ sëñ naar jenn mhm. wala ñaan sëñ naar mhm. sëñ Ngañ sëñ Ngañ Tandine boo xoolee ponkal yi Seex Isaa pare ci ñoom tifli leen nga xool diggam ak sëñ moor Joojo Fall sëñ Mor Jooja waaw maa ngi xasida fii gu rafet gu mu woy Cheikh Issa nga xam ni kon ponkal yi nga xam ni danoo ñëw rek jaar ci Cheikh Issa rek am lanteek moom mujj nañu ñoom ku ñu bëgg a fal-fal la ci nguuru sunu borom leneen la dafa bokk ci kàngam yi sëñ Touba waajal mhm. ndax wax naa la tey li gën a rëy muy mhm. bërëb bi ni jullee sëñ Touba njëkk ko te sañ Touba sunu borom a ko dig loolu yanant bi dig ko ko bi mu nekkee maa yomba ñu tasaare ay ay ay ay ay bant yu mu teg mhm. sa njëlli sëy di ci kaas yarant bi feeñu ko ne dinaa la faye jumaa ju rëy yoo xam ne kenn du fa julli di nërmal kon jumaa jooju buy taxaw mbër koy taxawal sëñ Tuubaa ni ana Seex Isaa mu ni maa ngi mu ni ko sëb liggéeya sëñ Sidi Naar Jenn moo ma nettali lii ma lay wax waaw ndax wan na ma kayit ya waaw jox na ma ko sax ay fan wax na ma ko man mii ba ma am ko waaw maa ngi ko ci ñaanal bu baax waaw maa ngi nuyu euh, euh, euh, doomam hmm. dëkk ak fa fële ca tuubaa hmm. ak taalibeem sëñ Bay Diop ma nga ca Italie. Euh, maa ngi nuyu bu baax a baax doomam ju baax jooju nga xam ne euh, léppam rek. Oh. sëñ si dinaar la. sëñ si dinaar dafa ne. keroog bi sëñ bi tegee tureel bi ba noppi. ba ne ko sab liggéeyee ngoog. nee na dafa jël ñaari kaye. waaw daal képp ku di seex tey joxe. waaw joxal seex Isaa. waaw képp daal di gees na sëñ ma numbe hmm. kuy mbokk tey joxe na la jox. sëñ si de ma ko nettali de. nee na sëñ Manoumbe raam ba ci wetu sëñ sëñ sëñ sëñ maam Cheikh Issa ne ko bind ma ci kayam teex yi. kayab taal bi bind ma ci. nga xam ne daa bindu ci kay daa bindu ci kayab ci sëriñ. ci ci mu ngi nii 11 mars 1918. mu ngi nii tegu xeer waaw. bind ci ñaari kaye yi. maam Cheikh Issa yore kaye bi. lu ko waay jox mu defal sëriñ bi nee sëñ bi ba laataa jumaa ji di di yegg sax fu mu génne bu ko xoolee xolam day sedd ndax liggéey bi sori gi muy sori ndax yàkkanti gin yàkkamti jumaa ji yegg ba gis nga discours bi mu defoon keroog bi nga xamee ne inauguré na ko dama wax la beneen mbir xanaa xamoo ni mhm. sëriñ bi dafa woo bi Cheikh Issa mu ñëw mu ni ko mhm. sunu jàmbaar jaa ngi nii sëñ Naar wallaay sëñ Sidi Naar ku baax a ngi nii wallaay ndeysaan kii baayam di sëñ Naar jenn mu maam Baara jenn mhm. mu maam Cheikh Issa borom jenn ak lagan nuy jina sëriñ Saaliwu sëñ Saaliwu xorandoom la daan woowee baayam Euh, ana xorondom ñëw na ndax ne naa yor melaw xorondom saa bu demee rek mu ngi indiwaat addiya rek day baagantey dem ak ñëw rek waaw te noonu la mel melaw xorondom la yoroon kii baayam di sëñ naar jenn nuy jëna sëñ saaliwu sëñ saaliwu di xel kafe ba ci moom ni ko yow damaa taamu nga jël kaas bi joxal ma sa bopp ndax sunu boroom xamal na ma ni koo jox yàlla jéggalu te dañoo bëgg njéggalu sunu borom ci baayam la ko wax sëñ naar jenn dama laa wax léegi ñu la Seex Isaa mhm. sëñ bi woo ko mu ñëw bis sëñ bi ni ko xaalis bi ma la jox xaalisu ngal la liggéey bi nag ku ma ko mës a liggéeyloo du ko man sunu borom moo ma xamal ni yaa ko war a liggéey hmm. te bu liggéey bi tegee ci yoon liggéey bee ma yëgal ni man nga ko nanga ko defal saatu saatu yooyu ñuy gube saatu hmm. mu ñu ko defal defal ma ko saatu hmm. na ko tëgg ba muy saatu nga indil ma ko ku muy xaalisu ngal bu bari maam Cheikh Issa defar ko ay saatu ba mu àgg mu indil ko sëñ Touba. bi mu agsee sëñ Touba muñ ni ko saatu bee wax ak man ni jaar na yoon ni ma ko bëggee mel na ni saatu bee ma ko wax saatu bee ma ko wax ñu ko xam nga lu ma ci jublu mu ni ko mbàkke bëgg naa ko xam mu ne ko saa su ma jugee di dem ci samay ibaadaat di sama jaamu yàlla sama digg sama borom mm-hmm. iblis mi may jéem a yàqal day sànni ay mbaal pour jéem maa dogaale mm-hmm. waaye saatu yi laay dagge mbaali iblis ba mën a jàll am ngërëmu sama borom Cheikh Issa yow la yàlla dogal nga liggéey ko lu ma amati sama ngërëm sama borom ni nga am sa wàll la la mm-hmm. cërëm a rëy cërëm moo rëy ndax sëñ Moussa Ka ni ko Bàmbaa ko ñaag ci xarnu bi xam nga may dafa am ñaag am léeg-léeg ngeen di lekk dara su ni diw dafa ñaag la mu yóbbu kenn yóbbaale ko moom sëñ Tuubaa ko ñaag su ko jox cër boo xam ni ëpp na ñi ko ko topp loolu ëpp na ci ñoom moo tax ñun ñuy waxtaan ci tànt yi xam nañ saa boo duggee ci ngenne kenn dootul téye boppam dañuy daam gis mbir man damaa dem bu mujj gi am na bis may waxtaan ca Touré Mbay waxtaane ca bas ca wetul waaye ma duggee ci Cheikh Issa di wax euh, ak sëñ Mor Ndiaye tàggaar keroog dañoo daj béréb ba <laughs> dañoo doon gaañ. man man maa ko def kon leer gu bari gi ca ñoom la. ak ngëm gi ndax Cheikh Issa moo wan moo wan taalibe yi lu leen kenn warul moo tax ñu mel noonu ñu mel ci moom. ndeysaan. moo tax taalibe Cheikh Issa foon fekk dañ koo gëm ba egg mhm. mooy sëñ Ali mii li ma def léegi Ali lay ndeysaan waaw nga xam dafa bëgg Cheikh Issa wallaay wallaay maam Cheikh Issa léppam kéemaanu sunu borom wallaay wallaay wallaay maa ngi ziar sëñ Cheikh Diaye baax Mbàkke mu sëñ Abdoulaye moom wéy juróom bu jigéen ah, daa bokk ci njabootu maam Cheikh Issa Diène mu sëñ Bassirou Diène maa ngi koy ziar wallaay wallaay wallaay jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Diop ñu gërëm la bu baax a baax xam naa danañ ko def deuxième partie ndax maam Cheikh Issa xam ngeen ne xajul ci 30 minutes waaye nag danañ ko gën a yaatal ñu ngi nuyu baax sëñ Mouhamed Diatara moom sëñ Moustapha Diatara ak magam soxna Faat Diatara fële ca New York di eh, doomi sëñ Moustapha Diatara mooy sama xarit boobu nga xam ne tubaarkàlla eh, maa ngi koy nuyu baax naa yem foofu rek soxna maam xarit Touré Euh, moom Serigne Cheikh Touré euh, borom beleel boutique ak Serigne Abdoulaye Dieng ñoo ngi koy nuyu baax soxna maam xëri di ko ñaanal ak taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci njabootu bi Abdoulaye gépp mm. maître bay di mbay sama avocat maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla maa ngi nuyu itam waa bayax sëñ Kamal dafa def mm. taxawaay bi am solo lool sañ Cheikh seen mais laa koy doore dëgg la yaroo këram la ñu reere mm. moom soxnaam yu baax yi soxna Fattala Ndiaye dëgg la soxna Ndeye Tunkar ak njaboot gi dëgg la waaye nuyu waa bayax gépp ndax da vraiment keroog Mm-hmm. cérémonie bi am na solo mm-hmm. waxtaan yi am na solo fa lañ gisante sëñ Ngagne Diop sax mu joxoon ñu rendez tey ñu ngi nuyu ñépp ña fa teew mm-hmm. di nuyu sëñ Modou Faye Diop sunu la di nuyu sëñ Cheikh Silla moom tamit ñu ngi koy siyaar baax soxna Marie Ciss ñu ngi koy siyaar bu baax soxna May a Njaay ñu ngi koy siyaar baax nuyu waa Bayax yépp keroog vraiment sagal nañu maag sëñ Akassa Samb ci programme dëgg la jërëjëf sëñ Ablaye kon ñu yi ca Touba Moustapha moom sëñ Abib maa ngi koy nuyu ak sëñ Dame Ngom ca Ziguinchor soxna Anta Samb ca euh, ca euh, ca euh, Dallas maa ngi koy nuyu baax Texas maa ngi koy ziare sëñ daam Touré moom it ñu ngi koy nuyu ak soxna Marème Sarr moom sëriñ sëtub sëñ Ibrahima Sarr Njaañ la maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu bu baax a baax koñ ba ñëpp say Sarr ñoom ñëpp Cheikh Khadim tubaarkala maa ngi leen di nuyu sañ Cheikh Mbacke ak waa Mbacke Bari ñoom sëñ Pape ak sëñ Baye faal ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla dafa leen tawféex ak mboolem soppe yi ñoom Assou Gueye Assou Mbène ñëpp maa ngi leen di xaddi ah, saafo soxna soxna Maguette a ñaanal sëñ Cheikh Kebe mi dugg léegi ñu ngi koy sant moom waa marché Thiaroy yëpp ñoom sëñ Ndiasse Sarr ñoom sëñ Fallou Diouf ñu nuyu waa marché Thiaroy suñu soppeel lanu dañuy topp émission bi duñ ko rate di nuyu ña ca Amérique tam lu mel ni soxna Sooda Jaw suñu soppee ca Philadelphie ak mm. tantaam soxna Bintu Jaw ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waa Philadelphie ak waa New York itam ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn ndax émission bi léegi sañ xaamitul dafa yaatu léegi ñëpp a koy seetaan amul kenn ko des ñëpp a ngi koy seetaan la dëgg la yàlla fay ñëpp ñi ngi nuyu suñu benn mag sëñ Ablaye muy soxna Jatu Diop di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex mm. euh, munu bokk lépp ak euh, soxna Sukay su kay maa ngi lay nuyu tey fële ca kam ca ca ca Mamel Wokam. Euh, ak boroom këram sëñ Bàccili nuyu sëñ Ibrahima Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar ci rue Tolbiac sëñ Ibrahima Ndiaye taalibe Lambaay sëñ Ibrahima koy ziar bu baax bu baax la ko ñu taxawu di ziar tam sëñ eh, Mandiaye Ndiaye tala ca bu Pikine moom it di taalibe Lambaay waa ñu ngi leen di nuyu di leen bégee nuyu sëñ Talla Ndiouk mu ngi topp jataay bi ak sëñ Dame Ngom ca Ziguinchor bala ngaa tàggatoo rek ma bàyyi la nga ziare leen ñoom ñëpp waaw ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi nuyu baax soxna Jatu Diop suñu mag la sëñ Ablaay ñu bokk bàyyi waaye Euh, man ak sëñ Moustapha Diop waa kër gi yëpp maa ngi ko ñaanal doomam yëpp soxna Coro Jean ñoom tubaarkàlla sëñ Malick Adja ñoom Faat Ñang ñëpp maa ngi leen di nuyu Amadou maa ngi lay beral nuyoo yow tamit tubaarkàlla euh, di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiix bu baax a baax euh, sëñ Ablaye xam nga dafa bari mbokk yoo xam ni nga ko waxee dañuy woote guddi ak bëccëg wallaay ndeysaan di wax ci émission bi di ko rafetlu ak di ci di ci joxe seen xalaat hmm. di ci participer rawatina waa kuréel kenn du sëriñ bi ñu ngi hmm. leen di ñaanalaat bu baax yàlla taxawu leen ak ñi nekk Europe ak Italie hmm. ak ñi nekk Amérique ba ci Brésil ba Argentine ba Russie ñoom oh. sëñ Cheikh Abdou Ngom ñoom ñëpp nga xam ne oh. seen taxawaay am na solo lool ñoo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex ñoom tamit euh, may leen ñoom it ñu yeggale euh, seen taxawaay di nuyu baax soxna Anta Ndiaye ma nga ca itali taalibe Cheikh Abdoul Ahad la maa ngi koy nuyu baax a baax a baax euh, tubaarkàlla di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ak wér sëñ Ablaye soxna Soodaka ca Touba ñu ngi koy siyaar waaw ñu ngi siyaar tam waa marché HLM yëpp Mm-hmm. ziyaare sunu soppee boobu Cheikh Tidiane daabo mm-hmm. ñu ngi nuyu tam bu baax sunu soppe soxna Koddu Guèye mm-hmm. ñu ngi nuyu sëñ Njuga Jong moom sunu xarit boobu nga xam taalibe borom daaru salaam mhm. di nuyu tam bu baax ñoom jiijak di siyaare ñoom Souleymane Seck mhm. sunu soppe yooyu du ñu rate benn yoon émission bi mhm. waaye ñu ngi nuyu bu baax sëñ Talla Ndiouck moom tam sunu soppee boobu soxna Soodaka ca Touba ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baax a baax euh, ñi ci télé bi tam nga xam ni ñoom it ñu ngi fi def waxtaan yu am solo sëñ Xaadim Njaay tasawuf ñu ngi koy siyaar démb topp naa ko may message léegi naa mu damaa dugg wax ci sëñ Abdoulaye Diop ah. seere ci yéen mën ah. ko moom njaayeen yi moom bokk ah. lépp mbay ñoo bokk lépp sëñ Maam Moor nit ku baax la moom it ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal mhm. di ko ñaanal wallaay di nuyu bu baax a baax na ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi ah, bokk télé bi ñoom it ñu rafetal ko lool ah, waaw di siyaare sunu soppe seen Cheikh Balla Coro Samb Baye Cheikh dugg na fi léegi waaw ñu ngi koy siyaar bu baax sànni nu xeer daal di dem siyaare Adja Nday Fay sunu weejur bu baax koo xam bu bëgg sëñ Fallou mhm. émission bi yàlla xam na ko da koo bëgg sëñ Hamidou mhm. daf may yóbbante ay nuyoo jëmee ci yow ak ku jox soxna Rayxaana Mbay moom it day topp émission bi guddeeg bëccëg bëgg ko lool wallaay nday Penda Njaay mhm. sunu soppe la bu ne fii Nord Foire léeg-léeg sax mu ne ma waxtaan leen ci nangam waaw nii boo nga ko defee dina rafet yooyu yëpp dañu accompagner fi émission bi ngir bëgg ko sëñ Mbàkke Jaañ taalibe Seex Isaa moom it kontaan na lool mu ngi topp émission bi xam nga koo fàtte nag waaw madame koo kenn du ko fàtte. Palme Bus. koo kenn du ko fàtte kooku bëgg nga ma koy ziaral bu baax soxna Nogoy Ka. Palme Bus koo kenn du ko fàtte ma ko nuyul bu baax borom bu baax bi. sëñ euh, Pape Mamadou Sow. wallaay bu Fram Voyage Palme Bus. wallaay ndeysaan ah, bu. Euh, découverte sénégalaise touristique. wallaahi ñu baax a baax a baax découverte touristique sénégalaise. mu ngi leen di siyaar euh, di nuyu soxna Khoudia mbay ca Bargny. Mhm. moom it la waaye beral nuyoo sama baay. Mhm. sama sëriñ. Mhm. sama wéeruwaay sama xarit. di bàyyi Moussa Niang. maa ngi koy siyaar bu baax ca Tëngéej yàlla yàlla yàggal taxawaayam amiin amiin bàyyiwuma tiituma dara ragaluma dara ngir moom dëgg la jàppale na ma zaahir ak baatin dëgg la yàlla na ko yàlla sàmm mu yàgg lool ci kanam njaboot gi dëgg la di ko nuyu moog njaboot gi yépp bàyyiwuma kenn mu ngi leen di nuyu deen ñaanal mhm. di nuyu soxna ni géy sunu soppe mhm. moom it day du rate benn yoon émission bi mhm. nekk fële ca Géejawaay ah, nuyu nañu ñëpp sëñ Moustapha Ndoye bu Sétiko nga xam ni kenn la ci man maa ngi koy ziar nuyu Babacar Diassé borom Global Traverse nekk fii ci Liberté 6. Mhm. yor fi agence de voyage bu mag bi maa ngi koy nuyu mooy bu baax a baax. dëgg la sëñ la fraîche. waaw ngi koy nuyu mooy bu baax a baax ak sëñ Majaw. waaw ak sëñ Majaw yëpp. tubaarkàlla yàlla yàlla sàmm ñëpp. waa mhm. marché asalem yi sëñ Omar Gueye. Mhm. sëñ Abdoulaye Haat Silla nuyu naa ñëpp rek bàyyiwuma kenn kenn kenn sëñ euh, Saliou Ngom nooru daare ni wallaay di ñaw lu rafet keroog baylaat bu rafet la ma ñawal wallaay yàlla yàlla fay ñëpp wallaay di ziyaare soxna Daba Séegu ndeysaan borom déko Daaru Salaam déko ak soxna na bu Bàccili borom da euh, borom euh, déko Rasoul ñu ngi leen di nuyu di ñaanal ca tubaarkalla jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri ñu gërëm ko bu baax a baax euh, ñaanal ko di leen wax moo nekkoon seen émission kenn du sëriñ bi euh, di bëkki ñi ñuy topp ñëpp soppe maa ngi leen di nuyu bu baax a baax fu ñu a nekk rawatina sëñ Mamor Dendey ko belal bu baax a ak mboolem ñi nga xam ñi ngi seen ginnaaw euh, di leen taxaw ñoo ngi leen di sant leen ñaanal yàlla defal leen tawféex te defal nu ko nag ci daraje Cheikhuna Ahmadul Khadim maa ngi nuyu mboolem ñi ñu doon topp rek te doon ñu seetaan bu ñu ci màggalu Sëñ Abdu Lahat nag ñu daal di waajal nag màggalu borom Daaru Salaam ak gaawaan Euh, maa ngi nuyu sëñ Mourou Diop foofee ca Touba euh, di ziare mboolem ñi doon topp te nekk ci réew mi di gërëm sëñ Cheikh seen raaya euh, sunu yaay Awa Sow maa ngi lay nuyu ak mboolem ku ñuy topp rek di nuyu baax a baax waa Rési sëñ Tamba waa Thiès ma waa Thiès yi wallaay sëñ Moustapha Seck jàngkat jàngkat moom it day waajal bis bu mag waaw dañ ko bàyyi xel le 12 waaw incha allah xam nga moom suñu émission bi ñëw na ci ñëwati ci incha allah suñu soppe la danañ ko waajal bu mag dañ cay dem soxna Mbène Ndoy mhm. koy siyaar sama jigéen soxna na koy xool maa ngi koy siyaar ngi waajal bisam bi sëñ Thierno Diop sëñ Thierno Diop it mu ngi waajal ah, bisam waaye itam am na bis bu may war a waxtaan fii ci Masaalikul Jinaan sëñ Mamadou Gueye mu Seex Balla Faali Jeng moo koy def ci sargal Alaaji Ahmadou Mbàkke yu fay tudde ko kilifa yu bari maa yor waxtaan wa le cinq tam maa ngi jox rendez-vous mbokk yëpp incha allah le cinq waxtaanu sëñ Tuubaa neex la fay incha allah incha allah jërëjëf kon ñu jox leen dig daje beneen jataay nan leen eh, lu jiw a jeexul jugu fa àllarba ak dana ñëwaat ak yéen di jox ñëpp nag di daje màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ajjuma incha allah eh, ca kër Serigne Abo um Cheikh Abdoul Ahad nan leen laylan maal baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah